iya maqaama bu gudd la maqaama bu kaahiya la itam wagay leen réer la nag gëlëm loolu baax a baax dafa wut dégg ko far daal la da ko de da ko déclaré mu ne ko yaafor yaafor suma gëlëm gi danga ma koo bañ a jox may kalaame hante ja aboo seen ni xëy nañ ko ndeke boobu gëlëm ko ñu ngi ko dénk Xadija mm. maanaam gëlëm nga feeñee na jëhit na mm. waaw ak itam mbiru takk jabar su koy def ndax dafa war dal tax bu nee gën wala mag a gën wala sol de célibataire mm. te yëpp daal mu ngi ci maqaama maqaama bu gudd la <coughs> mu ne hatta nettali na alxaarisu xaaris ibnu hammaam mu ne xafa torxeesoon na biya ak man mm. albaynu tàggaloo almutawilu buraaji sànni mm. wa sayru ak dox almubarri buraaji sonnale mm. ilaa den jëm ci suuf soo xam ne yedillu dana réer bi a ci moom alxirriitu aji ñëw wa tafraqu te dana ragal fi a ci suuf soosu almasalitu ay jàmbaar mu ne xam nga kuy dem hmm. léeg-léeg fa am lu koy fekk ci dem hmm. hmm. moo waraloon mu mos a dem ci suuf soo xam ne sala romb ko te gëlëmoo ku xam xàll sax mënul jaar ba te tiitoo am looy ragal lu way jàmbar jàmbar mënul aba tarxeesoon na bi ya ak man albaynu tàggaloo almutawifu budaaji sànni wa sayru ak dox al mubarrih bu daa ilaa bil jëm ci soo xam ne yadillu dana réer bihaa ci moom alxirritu aji ñëw wa tafraqu te dana ci ragale fariqa yafriq bokk rek faraqa yafruq a faraqa tàggale na yafruq ak fariqa ragal na yafruq bokkuñ wa tafraqu te dana ragal fiha ci suuf soosu almasaliku ay jàmbaar fa wajattu ma dal di fekk amma li nga xam ne jib dana ko fekk alxayru aji gëlëm alwahidu da aji wéet subaan loolu nag kum dal rek dana am loo yëg ah ma yëg xam ne ku dal danga ko yëg waaw fa wajattu ma dal di fekk ma li nga ne ay jib dana ko fekk alxaayiru aji galam alwariidu turaaji wéer walaaye tuma gis ma li nga xam ne kuntu nekkoon naa ahiidu denji denji mooy de waxtandeku men wu moom ma li ma daan ragal illa anni ndare man sajjaatu ñemeloona qalbi sama xol almasuuda ba de bu ñu tiital wana sootu ma mooy ma jàjji mooy ma gëdd mm. wana sootu ma dàq mm. mooy ma dóor mm. net wi sama gëlëm ku soomoom almaj boo dagare gu ñu sonn bi ma demee ba gis ne fii nag doy na waar terewul rek dama dëhërlu rek dàq sama gëlëm ne wéy rek benn nga àgg bu muccee wala nga dem ba xam ne man la ñàkk a dee nga rek doo rek la waaye taxaw mu du ma ko def mm. te mën a def mm. mm. taxaw te mën a def moom ko def moo tax illaa nii dara man sa jaatu ñemeloo naa xal bi sama xol almasuuda bari bu ñu tiital raglu na waaye yoon laa topp li ma war naa de dem kon taxaw léegi ñëwee woon wana sa su ma dàq nit wi sama gëlëm gu soogoon almajhooda gëre gu ñu sonnal mm. wasirtu ma dox mm. sayra daari bi dox ak aji sadde aji aji dóore mooy aji sampe aji dóore mm. bi xir hay ni ñaari bante may sax almustaslimi ku daa ji xomatu lel ñaal dee ma ne dem rek benn ma am chance mucc rek wala ma ñàkk chance dee rek waaye taxaw te mën dem moom du ma bi doxal aji dóore mooy aji doxee bi xit ay ci ñaari banti may mel ni ku nekk ci may sar amee bantam gaña ak bantam kaffara al mustaslimu ku daa ji xomatul lil ay walam asal dañu ma bay na wax din ci gannaaw ci gaaw wa damirin ak gaaw xeexeet toxin yu bokkul la way milin ak jéggi baax de miilin ci gannaaw ba miil maa ngi dàq rek lu mën a xew rek maa ngi gën di romb rek ilaan kaadat ba jege asamsu jant bi tajibu di daanu ba jant bi de bëgg a daanu waaw wajaba fa iza wajabat junubuha fakkuloo minha jàng nañ ko ci alquran mooy xat yi bu ngeen leen rayee bañ dee nag ku ñu daanoo man ngeen cee lekk wajaba daanu na يروابا فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت والشمس واجبة من ذا ولم تجبي da ko ci ci diwaan wuy abi tamam wuy abu tamam du muy ndokkeel moxtasim billahi ci fa du amoriya ak doo xare bi ni mu ñàngee dina ko baax a baax mu ne fa samsu taaliatun min sa wa qad afala wa samsu wajibatun min sa wa lam tajibi boo xoolee dëkk bi ni mu yànjee safara ndax lakk gi ñu ko lakk soo neexee ci guddi danga xoo ne ci bëccëg nga nekk waaye nga def pënd bi ni mu si lépp na kurru boo nekkee ci bëccëg danga xoo ne ci guddi nga nekk mu ne boo xoolee ci kii jant bi dana ko te pour yow soxul waaye boo xoolee ci kii jant bi dana fenk te pour yow sax wa samsu taaliatun minta wa qad afalat wa samsu waajibatun minta wa tajibi dina bu baax a ngi bokk ci mahaasinu seen re ak itam xasida boobu moo dalee ci asit ko am baan mi asayfu asdaq ko am baan min al kadibi bi haddi il haddu bayn al jiddi wal aybi waa muuri ak am dëkk la moo tax seen billaa daf leen woo ci diina ñu dem ba bëgg a nangu seen borom fekk am nañ ay mu nekk ji moone mooy ñi lay dana bu at ci falak ñi daje bi amul falak di wax ji ëllëg seen mu nekk ji moone yi ne leen seen heure sàngam su leen fi moo tasee song yi gën a fay def su leen songu beneen boobu nag saa boobu ngeen ci boobu moom bu leen songee dana leen def ñu ne comme loolu la duñ nangoo ko bala heure ba jot ñu ma tëddil song leen jumale ak bële ak bële mën a jumale yi a koy gañe mu mm. ma tëddil song leen te duma leen mm. abu tamaam de wax ne seen téere mm. yi seen jaase ko dàqa wax dëgg seen mm. téere ilmul falak jaase ko dàqa wax dëgg dégg nga mm. assayfu asdaqu ambaan min al kutubi fi haddihi al haddu bayna al jiddi wal laa'ibi dégg nga la wax dëgg nga waaw ah, la wax dëgg nga ba xasida ba àgg boo ko xoolee nag da nga ñu fekk lool fa samsu fa samsu taaliatun min daa wa qad afalat fa samsu waajibatun min daa wa lam tajidi dégg nga wa dama ngeen téere al muntaxab min adabil arab xam nga dafay topp maasinu fi'li su'araa yi su'araa yi lay jël seen maasinu fi'li seen seen wuyu rafet kenn ku ne muy la mosal dara mu nekkoon téere bu yem bu neex ngëm te boobu muy indi woon di wéyal bi tamam xasida boobu déedéet xam nga fi nekk bi almuntaxab min adabil arab téere bu yem la ñu rek te lu bëri moo ci nekk ci ay yu rafet waaw ba mu laa noon ci la ci la ko daan jànge waaye diwaan ak yi tamaam gisal ko waaye ndax sana li ma ci gënoo ci muxtaaratul barooti xañu ci la gis lu bëri dégg ilaan kaadat ba jege asam su jant bi tëji bu di daanu hmm. waddu yaw jege leer gi yax tajibu de de hiidu ah may dox de dox ba jant bi de bëgg ko xam ne su ku bëgg a wéyit doo gis waaw fortantu ma dal de tiit li idlaali salaam ngir xat si gi wala jege si gi waxti xaam jay si xaam ak bët xareeb xaam xaam mooy doomu noo bi naan mooy maami nit ñu walam adri man xawma aaf bidu ndax damay takk asayla labit waa sabidu dama xeewu am ax tamidu wala damay mbatoo allay la guddi gi waax sabid dama daji man daal xaama daal damay far takk sama xol fanaanal fi de rek bu ba setee lu dogal ba xam ne loolu la dogal su jóg xamee mën dem ma door a jóg hmm. walla boog damay far wéy rek hmm. lu ma dajeel xam ne loolu laa dajeel hmm. ma dal xamu lu ci am xamu lu ci am walla mu adre walla mu adre xaw ma aas te fi du ndax damay takk ak day la lafit waa sabit te ma xeewu te ma xeewu mooy ma dal am sum am axtamit mm. rimdu wala damay mbatoo mm. alay la guddi gi mm. waax tamit dama dajitu yi dafa axtamit bi laa ngeen def na axtamit la de xëyin la de ah loolu ngeen bind yéen de ke axtamit bi laa ngeen ma jublu wa bayna ana diggante baa man uxallibu maa ngi jàllar bi alasma dogu waam taxidu tamay faat mooy may wute génne alasma takk ci biir settantal daal ana lan moo ci gën a wóor hmm. taraa a feeñ na lii ñu xam ma sababu jamalin jëmmi ak gélém gis hmm. naa jëmmi ak gélém hmm. mustarrin bu raaje làqoo bi jabalin siiw doj mu ngi nekk ci gannaaw doj fa tara jaytuhoo ma dal de ko yaakaar xoodata murihin muy waruwaayu aji noppal ma yaakaar ne xañ na daal kuy dafa bëgg a noppal la wa qasadtuhu ma jublu ko qasda musihin jublu aji fallu ci wala mu jibbi ko lum bind moom musihin ah musihin num bind ci rabil affaire numéro bi wa xasatoo ma jublu ko xasda musiin jublu aji fallu wa isaa ci mbetteel asannu njottuli kahanatun kem jisaane la foog bi nag dajjal lool ndege nit la wal xoodatu waruwaay bi xayraanatun kem na ko njaaxalla la gëlëm gi ko xàpp ci baax waruwaay bi ak rafet romb rafet wal muriyu aji noppal ji xadin damala sangoona mu bi bi jaadihi ci mbàjjam waxtaan la mu tungeloo bi ruqaadihi ji yàlloram borom waru waaye mu ngi sango dene la moom a wal muriyu aji noppal ji mooy ki war waru waaye ba fanaaral damala sangoona bi bi jaadihi ci càngaaya mbàjjam waxtaan la mu tungeloo bi ruqaadihi ji yàlloram fa jalastu ma jékki xendaraat yi fa tolloog boppam bëgguma koy xee waaye ma def ko wér da toog ci tolloog bopp bi rek xataa xam ba ba mu xeewu min noxaat yi tukkee digamentu ba mu xeewu ca nelawe falam na daxara ba leeree sira jaawu ñaari lampam te mooy ñaari bëtam waa sa te mu ki nga xam ne faajaawu bett na ko mm. yu ba xool mm. gis ne na lu fi ne mu doon ba may nelaw mm. nafara foñu kama na yanfuru ni gi foñe almuribu aji sikka dem na definu ku gis loo xamagul la a nafara foñu na kama yanfuru ni gi foñoo almuribu aji sikka buur na xaw wa qaala mu ne axuka sa mbokk la amin si wala tilli kii moom nit la ne fa qultu ma ne ko bal li fi nekk xaabitu laylin aji dajjitu guddi la dal la joj réer na almaslaka soobu waay wala almaslaka fu ñuy soobu faa di leeralal lii ni an ma aqada ma ko jàll ka ñaar ma de ku doon guddi ci la waaw ah, fi mu ne nag yow bu fekkee man ngay taal man hmm. naa di la toxal maanaam ba ñu ma di dimbalante yow hmm. comme forante nañ ci àll bi hmm. te nit day soxla ba ñu ma di dimbalante yow xaabitu laylin aji dajitu guddi la dal la ku réer na almaslaka sóobuwaay faati leeralal li ñaal ma aqada ma kocc la ka ñaal fa qaala mu ma li yasru na wuññeeku han ka ci yow xam mu kasa njàqare loolu de buy moom soo mm. boo saxel dal mm. rubba axin bari na mbokk la ka ñaal la lam talidu juru ko um mu kasa yaay léeg-léeg nga dem man lan technique maanaam léeg-léeg nga fara seen nit boo xam ne da ngeen a mel comme ay mbokk te du deret moo leen boole fansara dal de wuññeeku hen da saalika foofale isfaaqi sama ragal ba mu ko defee na sama xel dal na mm. wasara dal al wasanu gamentu mm. ila ama kay ci samay jati ba mm. léegi ma yëg gamentu fa qaala mu ne ma henda sabahi ba suba de yahmadu lay sarda al qawmu nit ñi asura rañaan mu ne ma ñaare de eh, yooni guddi de bu ba setee da nga gis ne occasion dëgg la Faar Salah dama yàgg xalaat kama ara li nga xalaat li ma xalaat li ma gis mel na amul xalaatam muy wéy bañ a tëdd kenn de sabaa sal daal xaw ma nit ñi asuraara ñaan Faar Salah na yàgg xalaat kama ara li nga xalaat ne fa qultu ne ko inni man la ab maa gën a toppal ak min hidaayka ci sa dal hmm. waaw xukumaa gën a dëppoo yow min te bàyyi ko ci sa lekk ma ne ko man daal gannaaw gis naa la xaama waaw xaama jiibi sa waaw daal may sama waaw sa déedéet may sama déedéet waaye na rek sala yenu comme ça daal leka waaye na sala yenu comme ça yi rek boo ko jëlee du loo xam ma maa gën a topp la ka ñaan la min hidaaya ka ci sa dàll bi waaw xukumaa gën a dëppoo yow min hidaaya ka fasadaa mu wóor a bi mahabbati ci sopp ma lool mooy ma tigi yow yaa neex a ànd àndandoor ñaar la àndandoor bi la war a déglu ak bi nga war a déglu léegi nag bi la war a déglu bu la nangoo bu la nangoo déglu rek noppal na la waaye yow yaa neex a àndal waaw dégg nga àndandoor ñaar àndandoor bi la war a déglu ak bi nga war a déglu léegi nag bi la war a déglu su la nangoo déglu noppal na la dégg nga fasa daa mu wóoral bi mahabbati ci sama cofeel wa bax baxa mooy mu wax baxin baxin mooy eskay bi ci sama àndoo mu ne kun yow moo ne ànda su maxtamal naa topp ñu mu ji day de ñaari way fallu wartaal naa ñu mu li day de ñaari way rañaan noonu lañ jógee topp guddi walam nasal dañu ñu noxaani di jàm ko anteeg asura rañaan kono fi te ñi mooy alcaragamentu ila balaxa ba jot alleylu guddi gi rayetoo dayo wala fan fi te te alfajru fajar rayetoo rayo noonu la ñaan de de dox baba kay falamma asfara ba feeñee alfaadihu suba aji gàcceel xam nga weer li guddi na bon añaan faade walam yabqa te desatul illa waadihun dara loo leer ba ma seetee tawasaltu naa rafiqa rihlati hana loolu sama laxas wa samira tey aji ngoonaara sama guddi ma seet ci ma ànd ci yoon yi fa isa bu abu saydin ndeke abu saydin la fa isa ci mbetteel bu abu saydin mat la bu naafili kay sa kuwaay aji xam ne ki nga xam ne koo xam soo ko gisul da nga ko laaj mm. wa maa lamu rafidi mm. te mandargaale kay aji jub mm. nga xam lu waay ñëw ñëw soo ko gisee roy teen ko koy def fataha day naa ñu joxante tahiyatal muhibbayni na yow ñaari soppe ilal takaya mu ñu dajee bandal benn jigéen ak tàggaloo suma tabasasna takku ñu yundi ante moo ñu joxante kon damaa sos naa mooy ñu tasaare xaal de alxabaar ak xibaar yi ak kenn ku nekk ah waxal waxal morom waxal hmm. waxal morom ma ci mbiram la ca morom ma war a xam baax na ko mu ne dox ba bët set wa bayeer yi te sama gëlëm te booba sama gëlëm yan hitu mu nge fokkat minal kalaali ngir sonn waraay la soo gëlëmam gi te zifu dana mu gaaw wala nga ne dana rom te bi farraali kem gaaw ak doomi baax kem gaaw ak baax wala kem rom ak baax bi bët setee sama gëlëm gi mu ngi fokkat ndig sonn lool tun mu xaw daal mel ni lu daggale waaye moom mel ni gëlëmam gi léegi léegi la jox awa bàyyeer yi sama gëlëm yan hitu mu ngi fokkat minal ngir lot mooy sonn na bay bëgg a daggale na warahilatuhu fele moom moom tasifu dana mu gaaw tasifa raali kem gaaw ak baax gëlëm gën a mel ni moom léegi la jóg mel ni léegi la daxaat wa ajabani yéemuloo ma istidaadu asriha tatak kàttan ak gëlëmam gi wamte daadu sabriha ak tàllalu muñam ma yéemu torop ci gëlëm gi nim yabee yoon ci gaaw ak itam nim yabee tukki ci mën a yàgg ci dox ak mën a yàgg ci coono hmm. faaxattu maqaras atasifu de settantal hmm. jawharaha wurusu gëlëm gi hmm. ma tàmbale te xool gëlëm gi bindore beeg kawar gi ak yu mel noonu waasaluhoo ma laaj ko min ay na ci fan taxayyaraha la ko tànnee ma ne gëlëm gi foo ko toppatoo waruwaay bi foo ko toppatoo yaay ñëwaguñ waaye duñ nekk yow ñi nga xam ne ñëwaguñ min ayna ci fan taxayara la ko tànne dégg nga waax aluo may ko laaj min ayna a daanaka soreeku ñu ñu dalee ci bopp bi wa baneeri te sama gélém yan yitu dana mu fokka minal kalali ngir sonn waaw mu ne bi bët setee dañuy waxtaan maa moom boo sama gélém gi daggale na mu ngee fokka daanaka mën a tul warahilatoo gele moom moom mm. tasifu dana mu gaaw sabi farraal kem gaaw ak doomi baax mm. waaye gele moom dama mel ni léegi la jóg mm. mu ngi doxal bu gaaw faajaba ni yéemu dooma istidaadu asriha tatak kattanam ma yéemu lool ci gëlëm gi ni mu amee doole wam te daadu sabriha ak dàllalu muñam ak ni mu ñemee yoon ni mu ñemee tukki faaxattu ma xaraf ak aktasifu di settantal jawharaha wurusu gëlëm gi may xool gi daal ni mu melee diggante bindere bi tawa geeg yi mel noonu waa aluhu may ko laaj min ay na ci fan taxayyaraha la ko tànne ne ko ana fan nga toppatoo ay gëlëm gi fa mu ne ma inna li haadihi naaqati naka ñaal na gëlëm gile xabaran solo xulwal madaqati buraaji neex ci mosuwaay hmm. mali asiyaqati buraaji xoromu ci mangu buraaji rafet hmm. mu ne ma gërëm ngi sax de waxtaan mu neex a neex di bu hmm. am solo de xam na ci de inna li haadihi naaqati na gile gilem xabaran solo xulwal madaqati buraaji neex ci mosuwaay mali asiyaqati buraaji xoromu ci mangu fayin ahbab fayin ahbab te boo soppee istimaahu déglu faa neex yéesa la su fekkee neex na la ah nañ bokk taxaw waxtaan yéesa la sa gërëm ma yéesal ñu waxtaan way lam tasa boo soobu ba boo soobu falaat neex bul xerew su fekkee waxtaan ne neexu la itam ah ñu bari waxtaan daal bu la safee mën naa la ko waxtaanal te bu la safu leen ñu bàyyi rek fay na baxta boo soppee istimaahu déglum faa neex na nga yësal way lam tasa boo soppul nag wala tasa cero ngay xew xaaris ne faa naxtu dal di yësal li xaw li ngir waxam nit wi sama gëlëm gu soo moom ma dal di yësal gël sama gëlëm gi léegi li wax wa ahdaftu ma daas wala wa ahraftu loo bind waaw wax ko ma jubale asama dégg li ma jëm ci li nga xam ne yar wi dana ko solo booba rek daal laa yësa sama gërëm def suma ma commencé déglu li may wax def suma jubale may ma la jubluwaay asama dégg li ma ci li ne yar wi dana ko solo fa qaala yaalam xamal ne anni man istaaratuha gaarlu woon naa ko bi Hadramout ci dëkk bu ñuy wax Hadramout gi maa ko doon toppatooyee Hadramout wa kaabatu jànkuwante naa fi taxsiliha ci xamalam al mawta sababi de coono bu waree dañ naa ko door koo am xanaa dama deewul rek koo rek pour ba du dee rek mm. waaye coono bu naa ko mm. xel bu baax a baax léegi ñu ne mawtu jublu ci ay sababam mm. wa yaatihi l mawtu min kulli makanin wa maa huwa bi mayitin <laughs> xel bu baax a baax sabab yi day ñoo koy dikkal si lu ko tax a dee loolu la bi ma yitin ba koy xamee waaye mu ne bu dee woon du mën a nekk di nettali a tuha gaab loo wan ko bi Hadramawt ci Hadramawt wa kaabat tu jàng ko hante wan naa fi tafsiriha ci xamal gëlëm gi almawta sababi dee wa ma ziltu dañu ma ajoobu di tagg alayha ci gëlëm gi albuldana dëkk yi léegi nag ko amee nag may dem rek mooy doon sama waruwaay dëkk bu may mën a dem noonu laa ko nekk di tàggatee waate su te may dëggee bi axfaafiha ci ndafañam asirraana kekk yi mooy suuf yu dagar hmm. yi doj yi dégg nga hmm. barab yu doj yi hmm. ma war ko di ko tàggat ku ne ma dem ak moom yoon mu ñàng mu ne ma jaar ak moom waate su temay dëggee bi axwafea ci ndafañam asirraana doj yi ilaan wajattuha ba ma fekk ko xobra asfarin muy jéggi waay jamonoy tukki mooy mu dëgër man tukki lool waxoon data xaraare ngay xaduwaay ji sax noonu laa ko tàggatee ba xam ne fi ñoom ku jóg yoon xam nga loo demee ku jógul yoon itam boo xeewee xam nga loo xam waaw ilaan wajatuha ba ma fekk ko obra asfarin muy ku yëg tukki muy ku kàttanu ji tukki mooy mu jégi muy jégi agoon ji tukki waxoon data xaraare ngay xaduwaay ji sax laa yalhaquha du ko yéeg alxanaa wu coono xamul dem ba ca kanam mu raay mm. wala tuwaaye xoxaa du tolloog moom mm. wañ naa genn gëléem gu dal nekk dem mm. te yéen nag genn gëléem mën da leeroog moom bu leeroog moom moo wala tadri te du maa anana alinaaw mooy godorom te itam gëléem gu wér la mu ram wala tadri te du mu xam maa anana alinaaw mooy godorom faa sabtuha mu fuglul ko lil xayri hiw wasarre ak hay boobu laa nga fi noonu demukaay xam na mm. ah bu hiw xamee mm. demukaay xam na mm. dina bu baax a baax ah buñ ne tey diw sànga muy ngénte diw sànga moo aji woon màkk diw sànga moo am xewal jàmm ah demukaay xam na ah buy hay it demukaay xam na ah buñ ne bala sàngam coow laa nga fa bala sàngam maa ngi lakk diw dee na yëpp am naa lu ma demee daal lépp loo xam daal ku bëgg a jox war na lay tax a faasatuha mu fuulul ko lil xayri yiw wasarri ak hay waalaltuha ma wàcce ko ma àllal barri wàcce waayu aji baax asarri kula aji bégloo ma fonk ko lool it nag ah ndax itam nag xalaat boo ci bëggee di jëriñu da nga ko toppatoo ma de ko toppatoo baax fattafaqa dal di dajal an naddat ba mu foñuwaat mu mu dellu mat ak biir mu yàlla dogal mu dem réer ma mm. lu mot ab diir mm. wa maa lii te ñaarul ma qoodatun waruwaay si mm. waa àndare ma te moom rek mooy suma demukaay te mënu ma ñàkk a dem parce que sànq ma dal di yëg ala safa njàqare ma yëg na ne am naa lu ma métti lool wa tasraftu ma sakku ak talafa halal maa ngi naan gërëm gi li ma ci daj ba mu di gërëm ak ni mu doy xam suma ndax hmm. hmm. su hmm. ma ko ñàkkee nii yàlla na ma jig de loolu lay wax parce que sans ma yëg may ma sappu attala faaral wana ma fàtte kulle rus in wépp musiba salafu jiitu woon na dafa mel daal tiis mu suma dal dafa mel tiis mu suma dal lii daal ni méttee ci ma wa ma kastu ma sax salaatan ñetti fan maa ñetti fani guddi ñetti guddi yàlla laa sa teema den may man imbiansan buur sala buur sax mënu ma naa mu den may mos ma nelaw illahi sa san dara loo tuute rek daanaka mënu nelaw toll naa comme man nelaw il faut rek mu gëbi nelaw waaye nelaw yi noonu la su ma axasta topp ma xaram fi istiqraa il masaliki ci topp suubu way gannaaw loolu laa jóg dëkku da topp yoon yi nga xam ne ñaare daan na jaar ak moom di tukki wa tafaqqudil masaari yi ak gende ku wëru waay yi ak di topp barab yi gëlëm yi wëttee ak gooru waay yi ak di topp barab yi nga xam ne léeg-léeg ñu joxoon fanaanal fa léeg-léeg itam nit naan dal waana te man laa den may sorox ndeku min haa ci gëlëm gi riixan xeñ waaye daal dara lu yaakaar lu sax li dégguma ko ci de xama ko ci de waana teman laa tansi den may sorondeku min haa ci gërëm gi riixam xeñ benn mandarga daal boo xam ne mën naa caa dëgg xam fu ma ko foog xama ko de wala sax si te den may dikkal yeesan naa bu mu riixam bu raaji nopp de te wékk ci sama xel nopp lu itam yooyu mën a guma ko daal wa kulla ma dakkartu waxtu ko mada aha gaawam fi wéye wéyam fi sayri ci dox madaaxa biir bi seeri ci dox mooy ni mu gaawee dégg nga ni mu gaawee wala madaaxa gaaw soog biren baax na wambiraa ak gaarum ak gaaram li mu baaraati seeri ci gaarlanteeg janaaw saa soo xamee ne suma xel daj na daal ni mu jabee yoon ak ni mu gaawee rek laaxani lakk sama xol al iddikaaru fàttaleku gi wasta wat ni xoyo palma mooy daanoog man alafkaaru xelaat su ma xel dajee yeb yoon gi rek ak neex gannaaw gi rek su ma xol yeb fa baynama ana diggante baa man fii hiwaayi baadil ahyaa maa ngi nekk ci wàccuwaayu lenn gàdd yi mu am benn bis nag mu am ci am penc mu ma nekk ci mbette samiatu dégg naa min soxtin ci jëmm mu tabaxee din ku daa ji sori ma dégg koo xam ne mu ngi sori fu sori fu may waxee jegewul de mm. wa sawtin ak baat mu mutajarridin budaaji budaaji wéet mm. ni koo xam ne jegewul ma mm. te xam naa moom rek moo nekk te meetu dégg naa min soxtin ci jëmm mutabayidin budaaji sori wa sawtin ak baat mutajarridin budaaji beddeku li ma dégg mooy man man ana kan dalla réer na la koy ñaar ko matiyatun waruwaay ma ko réer la waruwaay hadramiyatun day ko jóg hadramut mu ne ko waruwaay wax xam ne hadramut la wasiyatun waruwaay wu mokk mokk mu ne ko waruwaay wu mokk mokk jildu ha deram ba xar usima mandargaaleef na ko defal nañ ko mandarga ci der bi de waxan ruha ràmmam xar usima daggees na ko de amul nag ràmm de wasimaamu ha noskaam xaddu sara léttees na ko de nosk gi dañ ko létt wasaxuwaa gannaawam kaan daanaka mbir xat ku sira damees na ko summa jubira topp jangees ko gannaaw ko mel luñ damoon jegaan yesiinu dana mu rafetal almaasiyata aji dox watoen dana mu dimbale annaasiyata aji ndawe mooy jigéen ju ndaw ji dox salaam mën naa rafetal kuy wataqataa dana mu dagg almasafata diggante annaayiyata bu daa ji sori a tadallu dana mu yendu abadan faaw mu daan yatan day jege la gëña àlla te itam nag du doon war waay woo xam ne day daw de la a laa yaxtawiruha du ko dikkal alwana doxa di dem ba ca kanam mu tële du ca am wala yaxtariduha du ko galan alwaja taññi dem ba ca kanam mu yëg tàggu mu yëg mu yëg mu yëg métti tu biir tànk du jaam wala tu biir ju te du haajoloo ci la laxasaa jëm ci xel da ko daggal xel ndég dóor ko du ko jaar wala temps yi te du mooy fii man ci ki nga xam ne xan saa mooy na te itam du bay ñu dem tuuti rek qaal abu serin abu serin nee na fa jasabani ñoddi ma asawtu baat bi ila saidi jëm ci aji baatal ja ba ma déggee baat bi daay jëmali fu ma ko déggee la laaj wa basara nii mu béggalee ma ba dar ke faye di ci jot aji faat pour man kay gëleen gi sañ naa falamma afdaytu ba ma fëree ilayhi jëm ci moom wasallamtu te ma nuyu alayhi ci moom ba ma xàggee ba nuyu ko baagal qultu wax naa la woo ñaal ko dama ne ko sallim jéggaleel almasiyata waruwaay mm-hmm. wata sallam te nga jël alhasiyata may léegi waruwaay woowu nga forom mm-hmm. man maa de forom joxoon mm-hmm. léegi nag kenn li ci jot a sonn nag li ma la ci war a jox laaj ko ma jox la xam nga tey sori na li mu xam mooy tey booy forom booy forom lu mel ni juróom jàmbur la dañ ko war a topp ko waruñ mu yàqu waaye alalu jàmbur lan sañu cee liggéey hmm. dan doo amee di ko toppatoo hmm. ci ker ak ci no ak ci lekk saa hmm. su borom feeñee ko ko jox ñu ñu seet fas bi dig bi ko amee kem li nga xam ne moom nga daj ci dundam kelum baax a baax ak naanam ak nekkuwaayam la ca jaadu borom fay la ko dora mën yëg ko waaw su fekkee daa jaay fa mi dolli ko mën a fay nag dana jaay fa mi dolli ko mën a fay waaw mm. su fekkee bu jaayee fa fay la day jeexal kon daa jaay fa mi fay la jeexal waaw moo tax bu dee nii quoi waaye jëmmi for ni fekk duñ cee neexal waaye dama ko waaye boo foree loo xam dafa aju soo neexal su borom feeñee ba nga delloo ko ko wax dëgg lañ ca sonne yow soo ko mayu dañ ko fay ma ne ko wi waruwaay woo lañ ko for joxe ko may borom mm. wata sallam te nga jël mm. alantiyata may gi mm. ñu te liñ ci sonn la jaware ma jox la ko mu ne fa qaala waa ji ne ma wama ana lan matiyatuka mooy sa waruwaay xufirat yàlla na jéggale xatiyatuka sa bàkkaar maslaa la rek mu ne man nga ne góor gi luy sa waruwaay nag aboo seydi ne ko xultu ma wax la wa ñaal ko ma ne ko naa ko dum gërëm boo xam ne gisatuwaa jëmmam garaat ga ni ki toj yéen a ko ponkale laa jëmm ji comme ponkalam toj la mm. wasir watuwaa jagañam mm. kal xubbati mu ngi mel ni bergende buy tabax mm. ponkalam gërëm la de waxaale bu xaa ratikam ratam lu ñu ratam melal xol bati fees na ratandu te itam sàlla boo ci rattee ji yëngu yëngu ba day fees de waaw waxala bu waa bi ñu rasam mi hmm. doon xol bati fees na raftukaay wa hmm. kuntu nekkoon naa uutis da joxee ma bi aajum xesri na ñaar fukk hmm. is xalal te ba ma wàccee yabri na ba ma demee moom yabri jotoon jotoon nañu ma jaajox ñaar fukki dinaar fattasattu ma dolli loo alladi ki nga xam ne anta joxe na wa daraytu ma xam ne annahu anta juum na dama dem yabri ñi fay ma ji ñaar fukk waaye nangu ma ko jaay yëpp gudd rek moom bu melalee waruwaay wi ni mel rek fekk muy waxam moo ko moom waaye laaj caale affaire yi wax leen bu mu ci jaare ñu te eh jëm moom bu melalee waruwaayam wi ni mel fekk muy basam rek moo ko moom bu dul basam it moomu ko affaire mm. yi mos nañ ma cee fay lii yëpp yooyu yëpp jarul mm. yëpp jarul qaala abu zaydin ne fa arada mu dumu yu am ni ci man dina samia waxtu ba mu déggee sifati sama melal waqaala mu ne ma lasta dér yow ci saa yi lu xasate ngay borom dina ko mu ne yow borom añ moom loolu mooy doxati la baax na boobu waaw moom jàppoon na ne feeñ na bay wax la nun ko xaar fekk loolu lépp jaru ko si formam yow nga réer le da ngay wax li nga réer le bu ni doo ni mu far rek moom jox la ko moo ko ci dese mm. affaire yi nii laa ko amee xam ah. mm. jaaroon na jéeg ni nangam ak nangam mm. yëpp jaru ko du la ko tee moom su fekkee moomoo ko it nag daanaka duñ la ko jox jarul nii laa ko amee xam ah. jaaroon na ci ni nit lii ak lii ko axastu ma jàpp hmm. bi talaa ci baat mbubbam hmm. mu ne man ko poñe de téye baat hmm. waa axastu ma jàpp bi talaa bii bi ci baat mbubbam booba laa ko téye téye baat mbub waa axrastu ma nuur xalaa bi ci fen loo ma ne ko du dëkk nii ngeen a def rek su ngeen gisee yëfi jàmbur su borom feeñee rek ngeen fekk pexe lang li nga wax du dëgg maa waabra tu ma nuur xanaa tasribi ci fen loo mm. waa moom tu ma hittewoo mm. bi tam siixi jala jalba jala bii bii mm. ci xotti ay bubum tuuti kon ma xotti yéree bi wawa tama yokkool mu mën a yaa haasa i yow mile maa ma tiyeti de sama waruwaay bi til bi ka de li ngay sag til bu ismu ma foo ne ala fi alim واستغنى بنحو نجا ونقد عن وزن مفعول وما عمل mamatiyati de sama waruwaay bitil bi ka de sa càkkutéef de de li ngay sàkku de fakku pegal an nii ci min xar bi ka ci ñaw ka sa lammiñ wax yu jagat yi nga may wax li ma wax mu ko wax loolu la wax waxat di bàyyil an sabbi ka wali sa ngañ ak bi nga may xar bàyyi mm. wéyil laa soo ko man daba mm. su fekkee ne nag xam ne moomoo ko nga bamante dem man la ko mm. fa xaadini kalaame ma ilaa hakami haadal hayyi jëm ci àttekatu gile gàtt albari ku daa ji dañ min al hayyi ci réer da kalaame ci réeru bëri moom ko jublu fëy na wajabaha su ko waralee la ka mm. ñaal la ko saxalalee ne yaay borom fatal mm. lam jël mm. nga jël na la ko jox wëyin sawaha bu ko dellooye xam walisa soo ko moomo su ne moomoo ko fala tasakallam bal waxati dara yoon loolu lay ko su fekkee nga maa yóbbu ko yoon joxee nga jël ko ko yoon joxul nga xam ne amoo doole hmm. Abu Seydin ne falam ara gisatuma nag hmm. dawaa xisati garab ak sama xisa sama njàngat hmm. wala masaaxa xusati du caageen wéy waaye sama fas ilaan atiya dara ma dikkal alxakama aji atte ji wala wala kama donte pes na ma gis na fi mu ne nii moom gannaaw mënu ma dem ci yoon rek su ma yeboo ñëwee waaw hmm. ah, walam ara gisuma hmm. dawaa xisati garab ak sama njàngat hmm. wala masa xusati du caageen wéy sama fot ilaan atiya ndare bu médical ala kama aji atte ji wala wala kama donte pes fan xarat naa ñu daal gaaw ñun ñaar ilaa seexin jëm ci góor rakiinin nisbati kuraaji dal ci samp yi biñ demee xaadi ji am mag lañ fekk mu do ku xam ne toogin wu dal la toog mm. ani xel hen bati courage rafet ci kaalawu hin mm. kaalawu hin wu jaga jag mm. la kaalawu ara kii ne nisbati courage dal ci sampu hin mooy toogin wu dal la toog ani xel hen bati daaj rafet ci kaalawu hin yoona su dem na yëg min hu ci moom sukkoonu tayiri dal ak njanaaw soo ko gisee da nga gis nit ku dala dal la waan ak naka luy mbir mm. lay sabil jaayir du ji jeng mm. soo ko gisee rek da nga seetlu ci ma mandargam man mm. fan dara tuma daal de jañu atadallamu di tawa tooñ waata allamu tamay méttilu ci saa kay maa gën a kii maa ko fi andi def na ma lii def na ma lii def na ma lii xam nga loolu jaadu ma kibet waaw fan dara di jañu atadallamu de di tawa tooñ waata àll mu tamay méttilu mm. wa saahibi te sama àndandoor mm. murim mun aju noppi la mm. may wax yépp nag waaji moom mu ngi ne taras rek waaw ah, wa saahibi te sama àndandoor murim mun aju noppi la laa yataram ramu du yëngat làmmiñam ngir wax bu ta wax la def xataa yi saa nasaltu ba mu yullee kinaanati sama tunkaar wa qadaytu tema faj lu baanati sama haajo mm. minal xasasi ci njàngat mm. ba ma waxee ba la ma bëggoon a lépp mu wax ko mm. hatta ida nasaltu ba ma jullee kinaanati sama tunkaar wa qadaytu tema faj lu baanati sama haajo minal xasasi ci njàngat abrasa génne na moom waaji naalan aw dàll waaji génne na dàll rasinatal wasni bu raaji diis ci man dal dalu woo xam ne wu diis la max du watan ba de bu ñu xadu mm. li mas la kel xas ne ngir soobu ci yoon mm. xam naa dana man kekk lool mm. wa mu ne haas yi lii day allati mooy li nga xam ne araftu xamle woon naa ko ah man de lii laa doon déclaré wa iyaaha moom wasaftu laa melal li ma doon melal yëpp nag dàll biir fayin kaanat bu nekkee hiye moom allati de li nga xam ne ontiye joxees na ko bi aa cam xesri na ñaar fukki misxaal woo waxaa téegan xewo mu ne muslim mu ngi bokk ci wéy gi su fekkee lii ci lañ ko jox ñaar fukk mu ne joxoon na ma ci ñaar fukk ba ma demee yebrin ma bañ su fekkee lii lañ ko jox ñaar fukk kon faqat kasaba fenn fii dama waw ci wootem ndax noonu na ala bu haa mil un xol bëti te lii kenn du ko dara su fekkee moom moom dàll bi lii ci lañ ko fayoon ñaar fukk kon ci waxam bu may dekkaar waxut moon bu lii rek wa kabura te màgg na maa li nga xam iftaraaw fent na ko su fekkee moom moom dàll te dàll la doon wax kon biir li mu wax fenn te fen dëgg de léegi nag lim ne xala bu haa mi doon xol bët lii kenn du ko rat ak naaqatun jusatuhaa kal halwati mm-hmm. kii du gëlëm mm-hmm. allahumma waaw mm-hmm. ilaa yi mu dandare ba mu tàllal xadaala wa sàllu baatam awaye biir na te mu biral mis daa xamaa dëggalu waaye li nga xam ne xaala wax na ko wala boog dana leeral li mu ko su fekkee fenn dana leeral li mu ko fa xaala dal di wax alhakam waaji xatte ji xattekat bi ne allahumma allahumma ay yow yàlla ay yóbbu xafran maa laa ñaan ak jéggal booy ah waay waay jéggalu de astaxfirullah xam nga wolof noonu la allahumma xafran wa jaala di jaalar bi anala dàll wi ban ci biir wasaaran ak ci gannaaw xaani ji téye dàlli àttekat bi di jaalar bi dàll wi ci gannaaw ak ci kaw summa xaala topp mu wax waa kam bi ne amma haadihi naalu daal wi moom fanaali sama dàll dàll yi maa ko moom waa ma matiyatu ka daa sa waruwaay foo fi rax lii mu ngi ci sama laam yow nag gëlëm gi ngay wut indi woon nañ ko foroon nañ ko ba indi ko fi kon fan hat na nga buur li tax la ma ngir na nga jël naaxataka sa gëlëm wa fan te nga def alxayra yiw bi asabi taaxatika ci kem sa kàttan kon man ngaa jël sa gëlëm waaye nga xam ne luñ doon sonnee la bu yàgg ba léegi te ñun ñu ko doon sonne moomuñ ko mm. dara waruñu ci mm. angasar yow itam nag mm. no delloo njukkal Abu Zayd ne fa qumtu ma daal di jóg wa qultu ma daal di wax xam nga gàcce ko ànd ak kontaan la daal mu ne uqsimu bil baytil atiqi fil haram wa taifina al innaka ni'ma man ilayhi yuhtakam wa xayru qaadin fil hakam faslam wa dum dawman niami wa naam mm-hmm. uqsimu maa ngi giñ mm-hmm. bil bayti ci borom néeg alantiixi ba daa ji yàgg mm-hmm. moom kaaba gi sul horami kay boromi horma néeg bay boromi horma wa taifina ak way wadi ki moom ñii wat alhaakifina ñu way sax fil ci wurum giñ naa ci kookule ne innaka naka yow ni ama baax na man ko xam ne yow takka mu dem na xartelu ilay jëm ci waaye yow jërë kalaame si ci yow waaji yaa jëriit kalaame in naka yow ni ama baax na man ko xam ne yow takka mu dem na xartelu ilay jëm ci moom wa xayru qaadin yaa gën ci qaad yi xakkama jooju xatte na mu fi enribi ci enrab yi dëkk-dëkk yu ndaw yi seef-seef yi ci nekk yaa ci gën faslam yal na ngay mucc rek mm. yàlla bu la dara jot mm. wa dum te yal nga sax rek mm. dawa man naami kem ni baa saxee kem sax ak baa wan naami ak ni juri kër mu ne loolu laa ko wax waaye gis nga nit yàlla yi niñ mën a waxee mu ne faa jaaba ci saa mu tontu moom xaadi ji min xëyri rawiyatin ci dul benn xilaat nag wala àq ni niyatin du càggeen fas benn héene ba may pareet daal ba may daanu daal la ma tontu xamul jiir waqaala mu ne ma jusi tahan sukrika xayran yab na am islastu astawjibu sukran yultasam sarrul anami man isa tuqdi salam summa man isturin falam yanal huram watani wal kalbu sawaun fil qiyam mu ne ma jusi te yal na fayat la han sukrika ci sa cant xayran hiw yab na am yow sama dama bàyyi tax mu ne mbokk mu baax nga ku gore nga ku mën a wax lu rafet la yal na yàlla fay is ngir lastu den man astawjibu may xeyoo sukran cant yul tasamu ko dem na ko waxlu wax dëgg yàlla xamee xalali jàmbur jir borom jox ko ko laabal sa bopp ci tooñ loolu ku ko def sa bopp nga ko defal kon yow ba ma satu doon itam man li ma def mooy lu mu war is ngir lastu den man astawjibu may xeyoo sukran cant yul tasamu ko dem na ko wax warlu sarul anaame ki xees ci bindeef yi man mooy koo xam ne isa tuqdiya bu bu xaate loofee ko mm. sala mu tooñ mm. nit ñi ki ci gën a xéer mm. mooy ki ñuy méngale xatte muy jëfandikoo tooñ ko mooy ki ci gën a xéer su ma man topp koo xam ne usturaya sàmmuloos na ko falam yaran te sàmmul alxuramu xurma yi xorma yi wala ku amee ndénkaane te sàmmu ndénkaane pasaani ñaar ñii te muy ki amee ndénkaane ak kismal qaadi mm. te jubaluñ mm-hmm. ñaar ñii wal kalbu ñoom ak dawkat mm. sawaun way am walañ fil qiyami ji daraja mm. nit ku ni lu la dawkat jaralul jarul ko jaral tanewul dawkat su ma innahu topp moom wali ji nafasa wéele na bay na yeddaye ci sama kanam man ko xam ne sallama jébbal na anaaxata gëlëm gi ilaye jëm ci man wala mu yam tan na te ñaaxut han la yee ci man mm-hmm. boo la hebal ku dem xewi gëlëm gi yët ma mm-hmm. taxut mu naan mi yow kat ah bu dul nag yow kat xaw ngaa liggéey fekk ko ci daf ñu ko jox rek mm-hmm. faruutu ma dal de gont na jiixal arabi daa ji faju ci haaju ma baxoo faam haaju ji faju a jurru maa ngi diri gayla tarabi lafitu mbégte kontaan torop waa xool ma naan yàlla la ajab ndaw kéemaan may xéemu rek qaala alxaaris ibnu hammaam mm-hmm. xaaris ne ko qultu ma wax la woo ñaal ko ne ko mm-hmm. tallaahi gin naa ci yàlla mm-hmm. laka atrafta mayeeti nga dikkeeti nga maye de dikkeeti nga kéemaan de tare tarif tur ba maye dégg nga mooy boo ko waxee dafay xaw a tumaranke ci nit ñi dégg atrafta dikkeeti nga de wa arafta te bari la dinga wax de hmm. bi ma ci ne nga xam xam nga ba tey de waxtaanati hmm. fa nasaba nasatuka laaha maa ngi lay laaj ci yàlla hmm. hal alfayta ndax fekk nga yow ashara ku gën a njebeer min ci yow balaa xatan ci balaa waxsana ak ku la gën a rafetle siyaaxatan ci tëgg laf ñaal baat nit ku la gën a xam ak ku la a arab gën laa rafet uslo mm. ndax gis nga ko ci nit ñi mm. yaakaar naa ne yow nit nga koo xam ne laa tara misla mm. ku mel ni yow gisoo ko sax yow ci sa bopp la hal wajatta ndax fekk nga ku gën a njeebeer min ka ci yow balaaxatan ci balaaxa waasana te gën laa rafet le siyaaxatan ci tëgg lab ñaal ba <laughs> ma ne ko ndax gis nga ku la gën a fa mu ne allahumma waaw naam gis naa ko di hee hmm. eh, fa samee déglul wanaam te nga xëwu hmm. déglul ak jàmm rek moo waxal la hmm. kuntu nekkoon naa asamtu di dogu hiina adhamtu waxtu wa ma jëmee tahaama ala ci bu ma jàppat raheena tan jabar li takkoona ngir na nekk moyeena tan daaji dimbale li ñaal ma bi may dem tahaama dama waxoon ne damay toppatoo soxna ànd ak moom ci yoon wi mm. ndax am na yoo xam ne nit mënalu ko boppam mm. kon ànd ak kala koy mënal dana ca baax mm. fa hiina tahayyana waxtu wa ràññee ko alxit bu labat al mulib bu guraaji sax bañ ba mel ni doogu xam mel ni daal fi ne moom xanaa jëm ci mu sotti moo def wakaata te jege alamru mbir mi yastatib bu di mat xam ne jege si nay mat af kartu xelaat naa fikral mutaharrisi xelaat ak aji wattandeku minal wóor mi ci deflewu bañ demee ba nga xam ne xanaa soobu si rek moo def pour mu sotti waaye xëy na sax la na dama xelaat ne man daal mbir daal bu jaa dugg baala xel jàlla dana ci baax hmm. al mutaamili ku daa ji settantal hmm. maskay fa maskatu saami hmm. naka la rotuwaay balu fet baax na boobu dama xelaat waaw bu ko defee nag xelaat boobu ma fana nekk baax na boobu indi indi indi jëm ci rek mu am hmm. suma xel dal di hmm. ah li ñuy wax boo sa xel rek hmm. foo wax da loolu moo ma dal nag mbir mu mën a boo see dugg war nga xalaat wa bittu ma fanaan laylati suma guddi keroog unaaji di deyaale al qalba xol al muhasaba bëri bu ñu bugal woo xale bu tamay jàllo bi alaat ma dogu al mu dab daba buraaji dengi dengi loolu nag def man xel mu jaxasoo nag def man atak dengi dengi wa bittu ma fanaan laylati sama guddi keroog ku naa ji di déyaaleen al xalba xol al muhasaba ba de bu ñu bugal maa ngi xelal rek woo bu may jàllar bi alaat ma dogu al mudabdab aji dengi dengi bu mm. ko defee ba loolu tax na sax mm. dengi dengi am na mm. ilaan aji maatu jëm ci bu ma dogaat alaan usira ci bu ma jogan njël usawira te ma diisu awala man aji njëkk ci koo xam ne usiru danaa ko diis may léegi daal xam nu may def damay jóg njël rek génn rek ak yoon moo mën a xaw ku ma njëkk a dajee kii la ma yàlla boole. ma lay xalaat loolu la loolu lay def. suba teel laa sama grand tuy lay jox rek. génn rek. ak yoonu mu njëkk a yoonu muy mën a aw. ku mu njëkk a dajee rek. ma ne xaaral kii lay def. ilaa laaj ma bu ma daw. ala usira ci bu ma doxan njël. bu ma jogan njël. woo saabira ak ma diisu. awala man aji njëkk ci koo xam ne. usira dara bu gis. xam ne yàlla njëkk gis ku jaar diis. tegewul loolu baaxul moo tax nga ko mujj sottiwul de dis dis war da tegewu pour nga di ko dis da nga wóolu xalaatam waaw da nga xam nga wóolu xalaatam waaw nga wóolu laabiram ku ma jëkk a dajale disu moo tax dara ba xam mooy teen rek waaw falammaa xawadat ba dañalee ba dindee azulmatu lëndëm gi adnaa ba ay buuma wa walla te méngale asuubu mm-hmm. biddi bi asnaabaha seeni lef seeni lafi mm-hmm. ba nga xamee ne guddi gi joxe na gannaaw biddi bi suuxni mm-hmm. ah bala maa xawataat ba dindee mooy ba dañalee azulmatu lëndam gi asnaabaha ay guumam tunub mooy buum yooyu ñu takkee xayma ba mu dëhër suñu bëgg a taxaw xayma bi dañ ko tekki mooy ba nga xamee guddi gi bagaasuma wa walla te méngale asuubu biddi bi asnaabaha dana na nga ci gannaaw day fare nga mm-hmm. biddiw yi jox nañ gannaaw mm-hmm. bi loolu amee daal xadawtu xëy naa mm-hmm. xudduwal mutaarrifi xëy ak aji wut a xam dama génn génninu ku bëgg a xam lu ko leer <coughs> wabtakartu manjëlu mooy musuba teelu ibtikaaral mutaayifi njëlu aji jàjji njanaaw ma daal di teel a jóg. comme kuy def di naan fajirul tayri. fajirul tayri lislaam nanguwu ko. waaye arab yi dañ ko daan def nag. mooy da ngay teel a xëy rek. nga fexe ba dem ci tàgg rek. dal de ko fëgg bu baax xam ne borom dana génn. su borom génnee naaw xaw sa wetu ndeyjoor. nga ne mbir mi ku engagé dana baax. su awee sa wetu càmmoñ. nga ne mbir mi baaxul nañ ko baax. waaye nag lislaam nanguwu ko nag hmm. xam nga ñaari janaaw lu ci bëri day teel a jóg hmm. boo soxlaa loolu il faut teel a jóg ngay def loolu mooy doo leen fekk seen tànk yi nag ndax hmm. da bëri yu teel a rek nag waxta kartu ba suba teelu ibtikaaral mu taayi fi suba teelu ay jajji janaaw bara dal de gaar lii ñu xam ma yaa fi woon gune mag yàlla dogal ki ma njëkk a daje ak ab xale la bu mu ngi toll ñaar fukki at jëm suuf fi waj yi na ci xar kanam saafi aji firmu mm. mooy gune gu rafet la mm. la bëgg a wax rek boo ko gis rek bëgg mm. innal umura idal ahdaasu dabbaraha doona suyuuxi tara fi baxdiha xalala xam ne yoo xam ne su ko gunee neen bëgg a saytu mag du mën a jag mukk fokk si mu am yor tara innal umura idal ahdaasu dabbaraha duna suyooxi mm. tara fi baadeha xalala mm. la wax mm. dégg am na mbir yoo xam ne ay gune ko nar a saytu du sotti de du rafet al umura ida al ahdaasu dabbaraha duna suyooxi tara fi baadeha xalala dën ko baax a seetlu nga bu baax a baax. lii nag yëf yi mag la. gis nga bu baax a baax. waaw seetlu nga bu baax a baax. ndax koo xam ne taaxusuha bi zimmatillahi. Mm. taaxusuha bi zimmatillahi. wa tastahilluha bi kalimatillahi. te loolu la de. waaw seetlu nga mm. bu baax a baax. koo xam ne taaxusuha bi kalim bi bi zimmatillahi. wa tastahilluha bi kalimatillahi. ku caaxaan boolewul leen. Mm. loolu il faut man bokk ci. Mm. gune la daa jël te noonu nag ku mu njëkk a mm. mm. mu ne xale ko rafet la. fa tayam man ma daal di sàkku ma ma daal di barkeloo. bi man bari yi ci gis gu waayam. albahi ji bu bi ma dajee mu muy gune bu mu ne ah lii de waaye xel mu dal la. waaw njëkk a gis loola. wasax daxtu ma sàkkoo kocci. ra'ayoo fi taswiji ci ci takk jabar hmm. ma ne ko waaw man de waaye sama doom dama bëggoon takk soxna hmm. e, ma doon la laaj bi sa xalaat dama bëggoon takk soxna daal hmm. fa xaala mu ne ma awa tabni yaa noo yaa ngi koy sàkku xawaanan mu wala jàng ko tuwaanaa bu def na jàng ko àndee moom ana noo ko bëggee mag nga bëgg wala gune boobu noo ko bëggee nag xawaan mooy koo xam ne duñ ko mel lay doo màggat waaye na door gune araqi wax na ko ci xaribul quran wi mi hawanun bayna salik mu ne maana hawanin nasafun bayna sigar wa bayna ma qad balagat sinnal kibar waaw maana hawanin nasafun bayna sigar wa bayna ma qad balagat sinnal kibar mais loolu mooy awan dégg nga maana hawanin nasafun bayna sigar wa bayna ma qad balagat sinnal kibar dégg waaw awa tab ki xaal ndax yaa ngi koy sàpp awaanan muy jeeg am bigran wala boog muy jànkatu aana bu def na jànkuwanteeg moom Abu Zaydin ne ko xultu ma ne ko ixtas tànnalal lii ñeexal ma maa dara li nga gis rek faqat alxaytu sànni naa ilayka jëm ci yow alwara buumi léegi daal man xaama tànn sa xalaat lay déglu rek sa waaw mooy sama waaw sa déedéet mooy sama déedéet fa mu ne ma hmm. kon nag ke laye jëm na ci man atab yéenu biral hmm. waa léegi yow la war atan yéenu ràññal fas hmm. ma déggal anaman af diik yal na nekk da sa jot banda daf di en diik di gannaaw suul say no mu ne man de man naa kenn ku ne ma wax la ma ca waaye li ngay tànn ci sa xel mi nag ku yaa ko mën man naa nag kenn ku ma wax la ma ca waaye yow nag yaa rewoon lii dalu waaw ilaye jëm na ci man a tab yinu biral waaleyke yow la warit na ana man ab dii ke yal na nekk dafa jot baax da def ni aha dii ke ci gannaaw suul say noonu ki lay diisu da nga koy wax li nga xam waaye doo ko ni lii nga koy forcé nag ndax amoo mu ne ma amal bikru daal jànq bu dee jànq dee moom mm. ko mos a dem mm. kooku dee fa duratu muy wurus almaxzuna ba di wuñu denc mm. kooku dee moom kaxe dëgg la wal baydatu te mooy nana baa wala wurus almaknuna ba di wuñu ñoŋeel wal basura te mooy njël benal meññal ak jënd yow de wuñu kotti meññal mii njëkk a feeñ mu ne ñoo basura mu ne buy gune dee moom wax dëgg kayit dëgg dëgg dëgg la te itam nit la koo xam ne kenn jiituwu la ci moom mën naa yaa koy tàggatee jikko bu la neex wasu laa ko sute mooy sàngara alhaniyatu su da aji neex wa rawdatu te mooy dër al unur bu da aji na rawdatul unur mooy tool dër boo xam ne kenn musu ja kenn musu ja sàmm dara ah jur musu ja dugg mm. wa taw ko te mooy ndombo mm-hmm. alladi ne samu na njëgu na mm-hmm. wa saru mm-hmm. yu dannita tilimalu ko laamisun wala saxsaaha dikkalu ko laamisun aji hoddoo wala marasaa wala moom abisun aji wala wakkasaa wàññiwul qiimaam taamisun aji moom daal lu mën a xew ngëneel yi mu ngi ci mm. wala te moom la ñeexal alwaju xar kanam alxayyu buraaji kersawu mm. te itam moo gën a doon borom sag mm. wattarfu ak gis alxafiyu buraaji nëbbu te itam moo la gën a mën a doyloo doyloo li nga xam walisaanu ak lammiñ alxayyu buraaji lottu te itam mooy gën a néew wax mooy gën a neex a mm-hmm. wal qalbu ak an naqiyu bu daa ji sell mm-hmm. te itam mooy borom xol bu sell mm-hmm. summa hiya topp moom ak dumyatu mooy netaal almulaaha feer tubaab yi gune am xeet netaal yooyu mooy dumya almulaaha batu bu daa ji fo te itam moo gën a métti moo gën a mën a wéttule nit li nga yonente bi waxoon na ko sayyidu sayyiduna bam sakkay debase takk ma ne ko halla bikran tulahibuha wa tulahibuka rawan nga tànk gune dëgg dëgg la suma hiya topp moom addumiyatu mooy netal almulahibatu buraaji ko wa loxbatu ak ku ñuy foye almudahibatu kuraaji moolan wal hasalatu te itam mooy koj biir almuhadila kuraaji këccilante wal murhatu te mooy ku xoromu mooy ku taaru al al kaamilatu gudaaji mat mm. wal wisaahu te mooy gañaay a tahiru gudaaji laab al xasib gudaaji xeefe mm. lu mën a tara nit ku bees fekk la daal boo ko amee mm. wasa jiima moo da aji tëddaale alladi aji tëddaale joo xam yusib bu dafay ndaweel wala yusibu te du bi jaawal te itam moo gën ci nit ah moo gën ci nit munaasahatul ajoosi dafay màggatal nit waru ko nga yàqatul baaxul ala tankihanna ajuuzan in du'ita laha wa'la siyaabaka minha muminan haraba jar na wàcc malade ñu teg la la ko waxati ah la tankihanna ajuuzan in du'ita laha wa'la siyaabaka minha muminan haraba wa in atawka wa qaalu innaha nasabun buñ la fi naan doxagun mag doxagun mag yëpp daal kuraat mu kuraat wala rek وإن أتوك وقالوا إنها نصح فإن أحسن نصفها الذي ذهب وتجمع te mooy aji tëddaale ku ñu tëddaale alladi koo xam ne yusuf bu dafay ndaweel wala yusuf wala yusuf te bi jawlo bu dee ku di daa xam ci ma sëyi bu daal jeeg nag bu dee ki mosoon a dem nag moom dee fal matiyatu waruwaay la almudalla la wale wu ñu mokkal moom dee kuñ tàggat ba mu mokkal la kuñ yar la hmm. na du tey mosaale hmm. almuajjala bari bu ñu gaawee te moom la mbiram di gën di yomb hmm. su fekkee sa soxla fa jëm dégg bu baax a baax tolof tolof yi am a am wal bi xeetu te mooy càkkuteef al musahala bare bu yombal mm. te itam mun na biram gana xoyof mm. wa tabbatu te mooy aji garbal al muhallila bu daa aji xam xob mm. te itam nag bu la fasoo lay dimbale moom ku xam nuñ war a dimbale nit la wal qarinatu te mooy xàndandoor al mutahabiba bu daa aji wut cofeelu jëkkëram mutahabib la zawjiha la bëgg a mu doon koo xam ne su ngeen àndee xel mm. bu nekk xam lay neexalee mm. wal xalilatu te mooy xarit al mutaxasiba bu daa ji huta jege mm. wasa naaxo te mooy liggéeykat wala ku xarala al mudabbira ku daa ji settantal wal fatinatu mu daa ji xelu al muxtabira ku nat lu mën a xewraal moom moom moom boo demee bay diggaaleeg moom diggaaleeg koo xam ne xam na li ngeen war a luñ ngay fekk da ngay fekk mbir koo xam ne xam na li ngeen def nu mu war a dox. Hmm. waaw xam na. Hmm. su ma innaha topp moom. Hmm. wajalatu raakibi mooy lu ñu gaawale aji waat. moom daal ku xaw a tumaranke ci soxna bëgg ku ko roqandi sax di. moo tax a roqandi nit de. wóyum sotul xaatibi te mooy pas rek ci aji aji aji aji labat. kinaayatu naan soo la ci mujjamaati mooy moo gën a neex a jot. moom mm. sootatul xaatimi te mooy padretti aji la aji laba mm. wa xoodatul aajisi mm. te it mooy waru waayo aji lottu wa nuusatul mubaarisi mooy màng aji léewtoo harikatuhaa jagañam layyinatun aji nooy la wa oqalatuhaa gàllankooram hayyinatun lu yomb la wa dixlatuhaa biiram mutabayyinatun aji biir la ndax yaa danga ci yaakaar jaboot danga ci yaakaar màng wa xidmatuha te liggéeyam mm. muzayyinatun aji rafetal mm. xale bi ne waa boo xasimu maa ngi lay giñal ne day mm. laqad sadaqtu dëggal naa fi naa tey ci ñaari melal yi de li ma la wax ci jànta day moo jane de li ma la wax ci keneen kii moo jane de wa jalawtu feeñaan naa almaha tey ñaari ndagi ñaari nagi jaxaal ah wax naa leen bañ leer waaw ba bi ayatihimaa kan ci ñoom ñaar nag xamala sopp xal bu ka ana kan nga ne mu ngay wala ayatihimaa kan ci ñoom ñaar xamala taxaw rut bu ana kan nga ne mu ngay takk ci wax na abu zaydin abu zaydin ne faraaytoo ma gis ko jan dalatan mu diw doj mm. woo xam ne dana ko teet mm. al muraajimu aji jamante mm. watuluma te def na nam nam naccale min haajim al mahajim ay namputale kay ma gis na nag ci plan ma taxawal boo xam ne koo teyu man ngi suux daj la ko ne sàlla booy sànni antenne boo gisee mu sànni ko. Mm. moom bala ngaa tax fa yow da nga koy moyu. dëkk mm. <laughs> bu boobu mm. daal nga doon seen noo koy ba dégg. li daal laaj gi. waaye daj la ne kum dal. ak suuf rek ngay. illaa ni ndare man xultu wax naa la woo ñaar waaye nag dama ne ko kuntu nekkoon naa samiitu di dégg ne de annal bikra jànq asaddu moo gën a tatu ban ci cofeel hmm. waa xallu te moo gën a néew xibban ci wóor hmm. man de fa dégg ñu ne hmm. gune ñaare mooy gën de dëggu mbëggeel mooy gën de mucc ci naag mais loolu de la wax waaye waxaguma taam naa dara de fa xaala mu ne laxam yi sama dund mooy sabab qad qiila waxees na haasa lii wax nañ ko de walakin li fi nekk kam xawlin bëri na wax asan haasa asan ju del wax eh du du ne wax ju dégg na jàpp de way haka wax naa sa yërmande ama hiya xanaa du gune jànq moomu ngay wax al muhratu mooy moo al abiyatu ne naan buraaji bañ ci noot buraaji bañ ci ko buraaji bañ ci xanaa du mooy ki ngay takk de sonn heure nekk li bëgg a mu tala wal matiyatu te mooy waruwaay al batiyatul ishaan buraaj yéex ci torox koo xam ne balaa mel lu la neex da nga sonne naxal defal lii ak naxal defal lii ak defal laa muñal ak naxal ak yooyu ci ngay dëkk wasandatu te mooy doju béy mm. al mutaasiratul iqtidaa buraaji jefeñ ci koc rajube bu naqadee taxal la hmm. mooy mu wéy ci lu la neex hmm. du yomb fokk si njëlbeenam ay tolof tolof lay xam hmm. wal xalaatu te mooy tata al mustasabatul iftita bare buñ jafeñ lu ko biir summa inna mu na taa topp ay coonoom kasiratun lu bëri la te fere yu bëri moo am ci moom wa moo ne tuwaa te ndimbalam yasiratun lu néew la te daanaka xamul fu ñoo faree yu néew rek ci la lay pare. Hmm. waaye sara taxa te naka xaar ndoo xam. salafatun hmm. lu jeng la lu jafe la. Hmm. ku naqadee àndal la daal. wa daal la taxa njëgatam njëgatam. mukallabatun lu ñu toggoo la. waya daxaa te loxoom xarxaa aji xara laxaa di la wa fitna mm. taxaa te fitnaam somma aji tëx la mm. te itam moom kenn mos a dem ci moom mm. lëm biiroo munoo koo xamee fenn waxari ka taxaa te jagañam xasunaa aji la aji ñëgal la walay la taxaa te guddeem layla aji lëndëm la koo xam ne mbir lu kumpa wa biir yaa bëtt yaa te nekk na ci tàggatam xanaa waa la fibratiha te nekk na ci biiram mm. mu ray kooku daanaka tuuti moo ci def daf dana ñëpp tagg ñëpp xam ñëpp du ko farale fenn waaw mm. ah, du ko farale fenn mm. wasaala ma axsad yàgg na bu mu toroxale almunasila aji wàcc ba fari karte mu bañ almuwasila aji këccalante waa na xatte mu merloo alhasila aji mborante waaw raa te mu toroxal. Mm. alfaniqa kuy albasila ku de madd. Mm. mooy góor gu xam ne. Mm. kenn yëbu ko. mu toroxal. su may naa topp moom allati mooy ki nga xam ne toppoon dafay wax naan. ana man. ana man albasu danaa xoddu. waaw waay waay waay su te ma ji. dina bu baax a baax. albasu danaa waaye li ñu tema jik yooyu bu baax a baax dafay wane ne moom daal dafay bëgg ñu wutal ku koy defal lu ne faat lu mu may sàkku man koo xam ne yut li ko dana mu boyal wayax bi su muy teye mooy la lox daanaka heure bu ne dafay ñaxtu naan nangam nangam boo seetlu fa xul ma wax la waa ñaar ko nekk fa maa tara loo xalaat nag sa yëngu ci jege aba tayib man mm. jàng na lu bari nga xalaat ko bari mm, xalaat <laughs> ko bari mu ne kon naa faa xam maa waa loo xam ne ci ko dem xaala mu ne way hatta roonaa sa yërmande ah yow daal atar ko bu dangay xamim fii fu daalatin ma akili ci lebi di lekk yi loo xam ne nit yow moo ci xàggal loo caa bëgg di waaw wasumalatil manahiri mm. tey lebi di naanu wali baase te de koo day almustabdal la de lu ñu suufee mm. loo xam ne ràppal nañ ko ba àggal mm. wali mi ay te de ndab almustaamal la de duñ jëfandikoo mm. loo xam ne jiitu nañ la wadda waaxate tey mosa kon sa waax buy ji góor mooy koo xam ne du yàggal jabar nekk diir rek bàyyi mu dem buy ji jigéen mooy koo xam ne du yàgg ci nekk nekk fa tuuti rek génn dem wadda waaxate tey mosa kon mooy koo xam ne du toog fenn al mutafarrifati kudaaji katu dégg nga sel bu baax a baax sel bu baax a baax al mutafarrifati kudaaji katu dafa niru tur boo xam ne daanaka rek heure bu ne dafay kii rek koo xam ne du toog fenn bu doon toog fenn sa xel du day dem ca moom wa zawaqati tey moo tax koon al mutafarrifati kudaaji katu wa xarajati tey génnaa koon al mutafarrifati kudaaji sapatu waxale bala ngaa wax ma li ma fekkoon nga may ba xëpp la ma tax xëpp la ma lii wal waqaay da da koo xar kanam di ñàkk kersa hmm. almuta almutasallita bi ku daa ji bëri wax koo xam ne ku bëri wax lay doon boo ne benn mu ne ñaar hmm. wa xarrajati tey génn naa koon almutasarrifa di ku daa ji soppatu hmm. dafa am yëngatu boppam ay pexe boppam wal waqaay hmm. te jigéen boo ko ëppul pexe hmm. a yëli hmm. ñu ne comme pitax la comme pitax la su mbagg yi saxee mu naaw dégg nga bu baax a baax. waaw boo ko ëppul pexe. doo ko mën a yëli comme pitax la. bu ma la al moroomul bayaan bi xaj bu njëkk bi dina doxal moom nañ gaa ci suturaal mm. waaye noonu lañ jox sañ-sañu nag bu sañ-sañu bu ko neexee mu ne génnal kër mm. waaw mu am sañ-sañu fase mm. mu am dogalu bu bu joxe wu ndigal nangam du am yëpp moo ko am kenn ku nekk nam toll rek noonu lañ ko tollale subaana buñ ko bëgg a jàllal bi nag du sotti de buñ ko bëgg a jàllal bi du sotti de waaye waaye waaye boo seetee fii daal ci tafsir bi. wala ñu jaale alayhim na daraja. soo ko toppee topp ba bëgg fii. digg bii. def bi li ma la wax noonu mën nga dem nga topp. ba pare nga dellu nga indi ma tere bi dem. mën ngeen génne mën ngeen wal mu tëkkërati te daa ji denc te def itikaaf ak mm. bu ne mu ngi wut ci sa kaw mm. al mu tasaxitati ku daa ji mm. ak bu ne mu ngi ñoxtu daa waxi gërëm waxi gërëmali waxi defaluñ ma dara defaluñ ma lii suma kalimatu a topp suma kalimatu a topp baatam lépp lépp daal kuntu wasirtu rek kuntu nekkoon naa wasirtu te mujj na bala ngaa muy xam hay moom indi ci sa sama dana jëma jëma waxam yëpp loolu rek waaw wane ne kam ja ko la nekkee moo tekki su du doon ndokkee du tàggoo kooka di kii ci yow waxam yëpp loolu la soo yeboo kooka na daan ko def lu ne waaw su ma topp kalimatu baatam yëpp daal mooy kuntu wasi waaw wataalama bu xëyee yàgg na bu beeweesee xale yee ci man xonu firtu dimbalee ma waaye nag ka ma nekkoon te mu def ak gàcce de mm. bu doon moom mbiri du demee nii mm. wasataanu wuutee na mm. bàyyi na yow mi diggante tey waa am si ak jëm waaye nag xamaru ana weer mi la sam si ci jàpp loolu rek mooy mbiram waaw te lay maakaaraante ka nga xam ne ca la jógee dama ne kooku mooy koo tekki gi dala ndox rek moo ko booleeg wayin kaanat bu nekkee ndaw suusu nag alxannaanata di binni haa koon xam nga ji teg mooy boo xam ne tey ci misaal dafa amoon jëkkër jëkkër ja faatu woon mu dëkk ci yow wayin kaanat bu nekkee alxannaanata di binni haa koon albaru kade gora ko wata ma hata te yëkkati ko akoon gis hmm. nga ma doobar góor ñu mu xool hmm. alhaloo ko kuraaji jeng hmm. mooy su yàlla defut muy nit koy xiw na fa hiya moom alxullu mooy gëx hmm. alxamilu bu daa ñaame teeñ hmm. dafa amee takka-takka kudum hmm. boo xam ne teeñ fa ca dugg waaw day doon méttitu biir bu xam ne kenn du ko mën a wane waaw ku ku gis kiñ kudum dangaa wane kudum bi rek moo ko sonnal waaye su fekkee takka bi teeñ na teeñ de matt yaram bi dafa doon beneen méttit boo xam ne ci biir kudum bi la nekk daanaka kenn mënu koo xam wa juru te mooy jam jam mm. alladi boo ne layen damiru du wér mukk mooy mm. ko man day liyan gi de mm. su demee nii da nga ci wee naqat wurut fajoor te doo ko wax kenn aboo seydi ne fa qultu ma wax la ko ma ne ko fa tara na yaa ngi xiraat ana taraxa bu ma labbee waxaat kon dara boobu ma faa wéy ci célibataire bi rek mm. ñàkk a takk jabar mm. waxaat lu ka ak ma suuf waxaatal masaba bile bile masab ma mm. tànn masab boobu ko fantaxar fantaxara nii mu gëdd ma intihaaral mu addi bi gëdd ak aji yare inda zallatil mu taaddi bi gis ko de ah amuñ ci de ah xas dama xas rek fantaharani mu gëdd ma intihaaral mu addibi gëdd aji yare henda zallatil mu taaddibi fatar xees ak ka yoo yar moom daal bi nga xamee ne wax naa ni fàtte na ne am mag la taxaw dama mel ni ak guréem guréem loo jagadi la neex daf mu ne pëndëm moom xale su ma xaar topp mu ne way la ko wana saala ku buur ya a topp di da roy biru baani ci labbe yi ku la fekk nga def nga defee labbe lu wala ku te dëgg xadis tabaana bir na te dëgg leer nañ ëppin cam la ka ñaal wali ra wali waani ra ka ak doxaat ak sa pexe yow yaa ma daan yaa néew ci ci dëgg yow daa nekk ku yàgg taw te nga waaye du la ma daal suñ cam la ka ñaan na la hmm. wali way ni ra'yika ak doadi sa pexe hmm. wa tabban xalasu la ka ñaan na la hmm. wali ulayika ak ñaan ñooñale yaag ñi nga bëgg a roy kenn doyu ma ci waaw ah, walaysa fii sahadatin taassubu mooy salibateeru bokkul ci dëddu àddina waaw ah, walaysa fii sahadatin taassubu wa tarku muhtajin la wa tarahubu amuloo ci ngant ne doo ko mm. mu ne xam ne bu ko rabaniya mm. waaw da ngay réeré baani wala xali saba mm. asura ko jotul sa bopp sax maa sa miata déggu bi an ci naka luy mbir laa rabaniya ta fil islam man naa am sa yow jàngoo di xam hadis yonent bi jotoo jàng laa rabaniya ta fil islam man naa am loolu yow sax jàngoo ko la rahbaniya tu di rahbaniya hmm. fil islam da nekk ci l'islam hmm. ci nit hensa ñi la woon ay gaa yu toppoon hensa xiir hmm. ci yàlla bu baax a baax warlu ci seen bopp ne dañoo def rahbaniya suba daf leen xatal ci nekkal yàlla bañ ko warloo sama borom fekk leen ca doonte farataalu leen ko la hëpp ja ñoom nag tëna leen matal ga tëna leen ñi nga xam nag matal ñoom la ñu wut ci yàlla xam nañ ko mm. wa jaalna fi qulubi alladina tabaxoohu rafatan wa rahmatan wa rahbaniya mm. mu ne ibtadaxooha ñoo ko fentaloon seen bopp mm. maa katabnaaha alayhim dun ñoom dun ñun ñoo ko farataloon ci ñoom illa ibtixaa ridwanillah xanaa daal ñoom ñoo bëggoon ngërëmal yàlla rek dal di ko fental seen bopp waaye fa maaraaw xaa xaqari haa yëti haa waaye sàmm ga ca yàlla na demuñ ko faatayna alladina amanu minhum ajrahum ña ko rafetal nag xam nañ lañ bëggoon te mooy ngërëmal yàlla waaye wa kasirun minhum fasiqoon lu bëri ci ñoom rafetal nañ lu bëri lu bëri ci ñoom rafetal nañ awa maa yow mën naa am déggoo laa rahbaaniya fi islam awa maa huddista xanaa waxtaanalee su la bi mën naa kii nabi ka ci denc say soxna ci denc ak sa ala yàlla nekk ci moom aska salam mm. xanaa loo jàngati jàngati siratu nabi mm. da nga dégg ne amoon nay soxna mm. su ma topp ama taalam xanaa xamula ne anna al qarina taxaat na ndoor a salihata gudaa ji hiw te rubbu dana mu defar bayta ka sa néeg te soxna su hiw su hiw kenn la ci saadatul saadatul mari fi dunia watu la bii te dana mu xëyu sawtaka sa hmm. te wéttal dëgg la hmm. ku lay jàppale la hmm. wayo wa taxuddu te dana gëmmal tarfaka sa gis te itam dana la dimbale ci fegu ak ngor bañ a mooy yàlla bañ a looy koo jotetu dara wa taxuddu dana mu gëmmal tarfaka sa gis watu tayyibu te dana mu teeyal xarfaka sa xeñ gu neex sa te itam dana la indil ak naw wa bihaa te ci moom taraa ngay gisee qurrata aynika sedd ak sa bët hmm. wa rayhaanata anfika ak gàtt ak sa bakkan hmm. wa farhata qalbika ak mbégam sa xol hmm. wa xulda sigrika ak bérak sa tur wa taayallata yawmika ak sungaleku sa tey wa xadika ak sa ëllëg te lu mel ne sa doom di sedd ak xol de mbéga xol de waral ëllëg nga baxoo bi liñ doon liggéey déwéy sa tur du jeexati ci soxna su nga ko mën a amee fa mm. kayfa raxibka naka ngay sibee mm. an sunnatil mursalina sunna ñu ñu yónni ñi mm. yonent yi alayhimu salaatu wassalaam seen sunna la ñi am ay soxna an nikaaw sunnatuna faman raxiba an sunnatina falaysa minna wa muraatil mutaahilina ak yóbbulu way xamee njaboot yi na nga koy sibee wa siraatil muhsinina te yoon yi ñu sange wuñi mm. wa majlabatil maal mm. te bijuwaayu xalal mm. wal banina ak i doom ndax yaa sayida yaatal warsak nit ki boo ko war a dundal lii warsakam fokk bi ci sa loxo lay jaaree mu ko wallahi giñ naa jaar laqasaani naqadina ma de fii ka ci yow maa tamit li ma dégg min fii ka ci sa gémmiñ sa waxi tey ji su maara da topp mu dummoyu nag moom gune gi hmm. inradal mu wax dëgg dummoyu ku ñu merloo hmm. bu dummoyu mas ku mel ku ma mere na hmm. wana daa mu tëb na tawaana moom du ngi tëb ak njéeréer de daw xel comme gune wa qultu mu wax loo ñaar ko mu ne ko yal na xalak la allahu yàlla abo seeri ma ne gune gi yow de yal na nga dee atantaliku da ngay bàyyi mutabaxiran daa ji bëngeer wata damani nga bàyyi ma mutta ayiran ma daa ji gërëm hmm. li taxoon ne ma di la dis parle wala ma fen hmm. li taxoon ne ma di la dis la ko da dem tamit ba li taxoon ne ma di la dis hmm. atantaliku ndax da ngay bàyyi mutabaxiran daa ji bëngeer daa ji daaguwaare wata damani nga bàyyi mutta ayiran ma daa ji gërëm fa qaala mu ne waa adunnu ka jortu naa la sa dangay ngay woote alxayrata ngëlmande rek li taj lu da ngir na nga door omayra ta omayra dafa am loo bëgg a def rek da lay naan dama gëlëm may gëlëmu da ngaa bëgg a def juldu omayra ta juldu omayra ta mooy alistimnaaw bil këf ah nit ki téye loxoom def waaye kanamam ba mu liyu génn ci moom ci almuharramatul farjiya ci la bokk mu ne loolu nga bëgg di def sax nga naan xamu na ma def hmm. wata sànni yee nga doyloo hmm. loolu nga bëgg wata sànni yee nga doyloo hmm. anil mu hay rek walit walit ngor seetkat Abu Seydi ne bokkul tu ma wax loo ñaal ko ne ko xabbaxa yàlla na ñaawal allahu yàlla san na ka sa njox yow de wala asabate yàlla bu yàlla bi jaawal hmm. xam ne que sa sa jubbu yow de yàlla bët bi hmm. wala asaba yàlla bu mu bi jaawal moom yàlla xam ne que sa jubbu hmm. aboo sey ne su ma ruuta topp ma bont xanu walis gune ga mara alxasiyaan gont ak aji torop mu ne ma am kersa torop wa tubtu ma tuub min musawarati siliyaan ci diisu gune yi booba laa ne bu soobee yàlla lu ñu war wa wax ak de Qaala wax na Al-Haaris ibnu Hammaam. Hmm. Haaris ne boqultu ma wax la woon ñaar ko néego. Hmm. uqsimu maa ngi giñ bi man ci buur bi nga ne am bata saxal na mu al ay ka garabu layk. Hmm. ne annal jadala dagge hadda bi yëpp daal min ka ci yow la tukkee wa ilayka te ci yow la jëm. li am baam daal yow yaay gis yaay kii doon gis lii yëpp yaa ko defal. mu ne baax la ba mu jéggi dayoo bi dahi ki ci reew mu reew bu baax hmm. wa tarifa mu daal di bég tarbatal mun hami ki bég aji nuur ci bànneexu bakkanam hmm. mu def definu ko topp sago hmm. wa qaala mu ne ma ilhaq maral alhaq wala lem wala tasal te bul la ci yow daal gannaaw andi naa la ay waxtaan yu neex kontaan ndax lii nga bëggoon waaye fu mu boo xam ne mu la ci fekk kenaa maral alaasalaamaaleykum wala tasal te bu laaj affaire bu jigéen xaarit hmm. ne baaxatu maqaral aussi bu di bëri wax. fii hmm. malin adab ci tagg adab. maanaam hmm. xam-xam rek a baax di tagg adab. woo fa di lu may gënal rabbahu borom adab. ala fi nasa bi ci borom xalal. maanaam waaye xam-xam mooy yëpp xaral mm. mu solo li dul jeex radina mm. xidmatan jabbaari fiina mm. danaa hen mun walil juhaali maalu wa inna al maala yabna an qaribin wa inna hen ma yabqa la yasaalu xëy na yooyu la nekk di wax woo tam yanduru mu ngi xool ilay jëm ci man nadaral mustajili xool ak aji ku ma jàppe may kuréer mu may xool xoolinu koo fekk ku ma fekk may kuréer wuyu di mu ngi du muy yoo xam ne ci man Seydou al mu du moyu aji ndànk. mu ngi ne mekk xam naa dafay xaar ba ma wax bu pare. wala ma afrat bu ma jéggee dayoo rek. finance biyati ci faral. li doon bëti ñaan booloo al adabiyati may ko jub adab. ba ma waxee nag xiira lool daal ci mbiru xam-xam ba suufee xalal. xaala wax na lii ne ma. ma wala sox noppil. wax ma te nga dégg min ni ci man wax te nga dégg déglu li ma lay wax nii hmm. yaquluuna inna jamal al fata hmm. wazinatuhu adabun rasixu hmm. wa ma iyasinu siwa al muksirin wa man tawdu suudanihi saamixu fa ama al faqiru faqirun lahu min al adabi al qus wal kaamixu waayu waayu jamalin lahu ayu qaal adibun yuallimu aw nas mu ne yaqooloona ñu ngi wax de mm-hmm. naan inna jamaalal fata taaram waay wasinata mm-hmm. wa tey taaram mm-hmm. adabun adab la rafixun bu daaji sax mu ne ñu ngi taxal de naan ki yor xam-xam mooy borom yëf yi ñu ngi koy wax de waaye wa maa yasinu du wa maa yoo lay waxat wa maa yasinu du rafetal moom adab si wal mursirina dara ñu bëri de waaye xam-xam daal ko mooy dara mooy ki am boole ca dara wa man ak ku ne taw du suuda di doju cangam saabixoon aji yëkkateku la ah ki yor dara daal te nekk man caa jëriñu kooku daal moom la xam di dara jaar waaw man faqiiru daal ku ñàkk kay waaye boo dara kay fal kursu kursu xeetu mburu la wal kaamixu ak kaamix xeetu ñam la xayrun moo gën la woo ñaal ko minal adabi mm-hmm. waaye soo yorul dara kay mm-hmm. wala nga am kaamel mm-hmm. gën a arrangé xam-xam kese du la dundal waaye lii moo lay teedee kon moo la arrangé dëgg rek kaamel benn la bu naqari bu doy waar benn arab yi da koo lekk julli juma imam na def xutba nag day indi ay alqa hurrimat alaykumul maytatu wa damu wa وأهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السمع إلا ما سكيت وما سبي على الإسلام على النسب وأن تستقسم بالأسلام ومن وقع ذلكم فسق منه والكامل على منه ولد والكامل إذا أبوات أي أي ولد يفيد ولا يعرف البعض léeg-léeg rima aleykum almaytatu wa damu wa lahmul xinziri wa ma uhilla li gayri llahi bihi wal munxaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nasihatu wa ma akala samu ila ma sakkaytum wa ma zubiha ala nusubi wa an tastaqsimu bil aslab bala waxa salikum fisqun mu ne ko waxal wal kaamil kaamil dafa jëla bokk waaye jamaalin ana bantaar la la way ñaal nit ki ay yuqaala bu waxee sax ne adibun borom ilmul adab day xam la rek aw naasixun wala aji bind la affaire bind kan nga yoroo dara kooku amul solo nit warul doon nit kese nit dafa war doon nit ak leneen dëgg bu baax a baax kon ñu jaay ci imam Moussa ñu bëggee xam nga dafa yoroon baam xam ne daf daan liggéey da ci am dara bi mu bëggee jàng mu ne mbaam mi dafa yàqal jàng mu jaay mbaam mi waaye bu nekkee jàng mu ne mu ne daal ku jàng man taa ne mbaam waaye bu nekkee béykat dafa wutaat mbaam mu ne ku jàng man ta jàng mbaam waaw da ngay dem de da ngay dem de léegi xam ko ñëw day soxla la day soxla la day soxla la voilà da ngay dégg naan xam-xam baax na xam-xam baax na nit moom warul doon nit kese de nit dafa war doon nit nit ak dara xam nga loolu la wax su ma xaala topp mu ne ma xaalis na abu seri ne ma sa yeddi bu xesi nay leer la ka ñaal la si xula jëti dëggul sama kàddu li ma la wax nii dana leer watti wattinaaru tu hujjati ak leer sama lay li ma la wax nii bala yàgg nga xam ko ndax àddina moo la koy wax waaw hmm. ah, li ma la wax ne jamono bi du jamono ñàkk mu hmm. ne ko lu bañ yàgg ko xam àddina moo nu xeeti nay biir la kañaal la hmm. sirku la jëti dëggug sama kàttu wasinaaratu jëti ak leer ak sama ne wasur wasir naa ñu dox laa na loo lu juudan kem kàttan wala na tafiqu duñu xiqi mm. jaadan ngir coono mm. mu ne ñu de man mm. ak luñ amul noppalu topp coono bi naa ñu dox daan na loo duñu gàttañ lu joodan ci coono ci kem kàttan wala na tafiqu duñu xiqi jaadan ngir coono xata addaanaa ba joxe ñu asayru dox bi ilaa xariyatin jëm ci dëkk boo xam ne han sa boo fàddu na xanaa wali dëkk ba alxayru yiw mooy xam nga booy dox mu ne ngay dem ci dox boobu la ñu àgg ci dëkk boo xam ne na naa mbaax moom ne mu baax nit koo xam defal nit loo baax loolu xamu ko àgg nañ ci dëkk boo xam ne yaakaar naa daal mbaax moom xàggagu baax waaw nit koo xam defal nit loo baax daal du xàggu ila xaritin jëm ci dëkk boo xam ne xasuba fàddu na xanaa walis dëkk ba mm. alxayru hiw mm. fa daxal naaha ñu sàbbi ba mm. li listiyaadi ngir gub mooy ngir sàpp ñu bokk dugg ci dëkk ba ndeg bëgg luñ fa am wa kilaanaa te képp ci ñun mun fi doon aji fëggu la mina saadi ci yóbbal te wa man jeexal na moom waaye balaa naa joti wuñu mm. almahatta wàccuwaay bi mm. wal munaaxa ak yësuwaay mm. almuxtatta ba de buñu rëdd mooy ba de buñ dayal dégg baax waaw mooy ba de buñ xadu balaa ñoo xàgg fay gaaree kaay ba xàgg guñ fa de waaye balaa naa joti wuñu almahatta wàccuwaay ba wal munaaxa ak yësuwaay almuxtab ta bari buñ xadu mooy bañ dogal ne kuy dikk si mooy gaare kay bañ fa xàggat mm. loolu xamul mm. aw la xiyanaa ñun mm. wala mun ak a gune boo xam ne lam yem lu jotagul alhin sa teñu ñu dajeeg ak a gune goo xam ne matagul mukallaf wala xaati xii te nekk na ci jogareem dex sun tey si ñax mu ngi gàddoo tey si ñax fahayaahu nayu ko mm. abu zaydin abu zaydin mm. tahiyatal muslimin nayu jullit mm. abu zaydin na ko assalaamu aleykum wa rahmatullah ni jullite nayo wasaaloo mu laaj ko waqfatal mufhimi taxawak aji déglu taxawak aji dégle mu ne sama dama dama bëggoon nga may taxaw tuuti rek dama lu ma bëgg a wax yow wasaala wa mu laaj ko wax patal mu fi mi taxaw aji déggale benn taxawaay bu xam ne dafa am lu mu ko jaa leeral fa qaala gune gi ne ko wa amma ci tas alu ngay laaj ba faqak yàlla na dëppale laaj topp allahu yàlla laaje li nga laaj looy laaj fa abu saydin ne ko ayu baaxoon ndax dem na jaayee xaawu naa bi aruta bu manax mooy tàndal ma ju tooy bil xutba bi ci xutba ndax fii ku fi def xutba bu neex dañ la jox tànn ma jox tey xepp nga lekk ayuma am ndax dem na jaayee xaabu naa ci bi aruta bu manax bil xutba bi ci xutba xaala gu ne gën a ko laa diirit wallahi gis na jaale fi amul yooyu xamul yooyu de xaala abu sari ne walal bala xeetu tàndarma la mooy tànn faaw mu hmm. bil mu lay ci wax yu tàndama jooju àgg ci ñii ko jëriñoo hmm. waaye ñoragul bay doon lu taw hmm. xanaa boo waxee lu réel dañ la ko nangoo jox hmm. xaala ko kallaa déedéet wala hee eh, déedéet loolu moom jor fee foog de ne ko wala samar du caagin mais bi samari ci ngoonaa xanaa boo fi amee ñëw ngoonaa la boobu dañ la jox dara loo lekk boobu xaala ne ko hay haata wallahi hee eh, déedéet loolu xamu qaala Abu Zayd ne ko walal asaid du caageen ay asida xeetu ñam la ci toggi arab yi la bil qasaidi ay qasida est ce que fii ku fi wane qasida dañ asida nga lekk qaala gune gi ne uskun noppil waaye afaaka yàlla na jàmmal la allah yàlla loolu moom bu ko waxati loolu ba jël wax jël wax qaala gune gi ne ko góor gi ne Abu Zayd ne wala saraidu du càggeen ay sari ñam la xam ne ñu ngi koo liggéeyee yàpp ak mburu mm. waaye liggéey mi nag xamu ko mm. bil faraidi ci ay farida mm. farida may baat boo xam ne jëfandikoo nga ko te boo ko dindi woon beneen baat bu koy wuutu doo ko mën a am fii ñaari bindkat dëgg moo koy soo ko defee fu la du yomb dëgg dëgg mu ngi mel uhilla lakum ilaa nisaikum gis nga baatu rafasu googu nim daganalee jima mm. mm. ak muqaddimatul jima ca laylatu ramadan ak nim teggi yino mm. beneen baat mënu ko fi wut moom rek moo fi mën a nekk joxe loolu beneen baat boo indi woon rek du ko mën a wut du ko mën a wut lu mel noonu moo tudd farida ah bind kat dëgg moo ko mu ne wala saraidu du càggeen ay sarid bil faraidi ci ay farida xaala gu ne fi waa ay yu saabu fu demee bi nga jëw ah yow ana fuñ la jëmee nag hmm. asodaka yàlla gindi la allah yàlla xaala hmm. boo saydil ne ko wala daqiqu du càggeen sunguf bil maana ci maana a daqiqi mu daa ji sew xaala hmm. gu ne ko ee eh, haddi bàyyil hamsa ci lii waay asaake aslaake yàlla na éwéna bil allah yàlla waxtala dal di neexlu nag abu zeydin tarajon mm. alkalam delloo hanteeg wax ji tarajon soal delloo hanteeg laaj bi mm. ak tontali mm. wa takayul ak nattalante minasal jiraat ci gile gafaka abu zeydin ne mel ni li moom buntu waxtaan la ko def rek fi ne daal na ngi taxawal ku nekk di ak moom rek wala maa gendeeku a soy alxulaamu gune gune gi gisal boppam ne hmm. anna sawta na anna sawta naka yoon wi hmm. anna sawta naka yoon wi hmm. ba tiinun aji sori mu gis ne góor gi su ma ko toppee ku xam jaamu daal wala ma ha gendee ko alxulaamu gune gi ne anna sawta naka yoon wi ba tiinun aji sori wa seex ak góor gi su way tiinun as la façon seytaane la xam nga seytaan faa gi yàlla hayndi comme su yey tiin mooy muxtadal xiyaar waaye soo dee tafsir nga lam mu ko ku ñaareel war a doon yaa dagan na nga def ko waaw ma noon soo ma ñoon soo yey tiin fa qaala mu wax moom gi la hoo ñaal góor mm. ne ko xam buka na la doylu na la doy doylu yaa yow góor gi mm. xalaatu xam naa fan naka sa fànn mm. wa sabartu te birlu naa an naka sa dëgg-dëgg mm. léegi daal boo ci gàttal xaaral mu waxal la rek mm. xam naa fi nga jëm fa xus jàppal aljawaaba tontu li subratan muy lu rek xaar li ñu nga war a laaj rek moo waxal la ko ci de ko laaj waxtu bi te nga ci tontu bi xibratan ci xam te bu paree nga xamee rek bu ko dee amma bi haasal makaan daal ci bii barab hmm. dëkk bii ngeen dugg hmm. fala yustara defu fi jandee de hmm. asiyaru wëy bi sañeretin ci benn peppam sañer wëy mënul la ko be may de wala nasru du caageen wisal ñaari saara la xutba la du la fi may benn saaratin ci wisarit de waaw lu ñuy wisaare walal xasasu mm. du caggeen ay xis la da def ay hikaayaat mm. du la fi may de bi xusaasatin ci jeef bi teme mm. noonu la ko fee may de wala risaala du caggeen risaala leetar duñ ko fi jàndee bi xusaasatin ci raxasit de noonu la fee may dara wala hikkamu luqumaana du caggeen hikkamay luqumaana yi duñ ko fi jàndee de bi luqumaatin ci benn kib wala axbaarul malahim du caggeen ay xibaari xare bila madin ci gan ci dogu yàpp hmm. munu fi am do seen risaala xusaala xasasoo xusaas ma ci am li ma lay xamal mooy wax moom munu fi may zaman ndaal hmm. maasa gële jamono xamaa hmm. minhum nekkul ci ñoom man koo xam ne yemiihu dana mu maye ida siyaxa bu taggeetee loxo ñaal baal ma di bu tagg fii hmm. koo fi mën a taggit hmm. du la may dara hmm. wala man du jàggeen koo xam ne yu jiisu dana mayee ba tey dana joxe isaawum sedda bu sadda leefee loxo ñaal baal jiisu ay rajas wala wala man du jàggeen koo xam ne yu xiisu dana mu xettali isaa après boo su ko béglooyee alhadis waxtaan wala man du jàggeen koo xam ne yemiru dana mu xonte wala an o data mu amiru bulla yi daal nu fi waaye mën a toll nu fi waaye mën a toll it ñoom daal xamuñ dudu daal seetaan leen rek loo am lekk rek bu jeexee nga toog te daal ba ñoom ne am na masalal adi bi meloo borom xelmul adab karrafin mu ngi mel ni melo kër aljadi bi bu daaji bee foor ñoom dañuy wax ne rek ki am daal hmm. dafa ni bàkk hmm. bu xamee dara ne àggu kër gu xamee dara ne in lam te jut bu tabeexut hmm. mooy bu mayut aram ha kër ga diimatun taw waame lam te kun du la hoo ko ñaar qiimatun qiima wala daanatu du ko jege itam bahimatun bahima su ne la tàlli na tawut ba dara fa lu bahima de war a far saaba yi ma dem fa de saaba yi ma dem fa de wa kasa naka noonu al adabu adab in lam yaxdudu su ko dimbalewul nasabun halal fa darsu woo jàngam nasabun coono la wa xasnu woo dencam xasabun matt la rek xam-xam su fekkee yoroo dara coono la lay li la gune gi wax su man dara topp mu wàcc hmm. yaa doo di daw hmm. walla mu joxe gannaaw hmm. yaa doo di màgg gune gi ne bi mu waxee li te bu rek xaw yoon dem dégg nga ko baax a gaaw na gaaw su man dara topp mu gaaw yaa doo mbiram dana mu daw walla mu dëdd yahdoo di màng mooy mu ngay dem hmm. fa qaala daal di wax lii ñaan ma aboo seydin aboo seydin ne ko hmm. ne ma alim hmm. sa xanaa xam nga ne anna al adaba adab xat baara lamba na de wallat méngale na ansaaru ko way ndimbaleem way dimbaleem alat baara seeni gannaaw xam nga ñu ko doon dimbale léegi néew nañ doole xaalis ne fa buutuma tuddal la fooy ñaar ko biir nil basirati ci rafet ak gis ak xel. ah yow kenn nga ma la xamu ko lay xamal. bu hmm. ràññee ni yow àddina la ko mu wuti. Hmm. ah buutuma tuddal la fooy ñaar ko biir nil basirati ci rafet ak gis ak xol. wasallam tu muhammatul ko. lu mu ne def doroora li mu wax nangu ko. ndax itam weddi gis bokku te jënoon naa am. fa qaala ma. daana bàyyi ñu alaana léegi meneen misaaya ci daggante bi léegi waxtaan nañ ko dakkalagu waxu te na nga xuus fi hadisil xisaan yi ci waxtaanu bagaan yi su ne affaire u adam nii adam naa nañ ko dakkalagu seet ko xam muñ def ba lekk daana bàyyi ñu mooy nañ bàyyi alaana léegi meneen misaaya ci daggante bi waxu te na nga xuus fi hadisil xisaan ci waxtaani bagaas yi waalam xamal ne anal asjaa nag ay sañoo nii rek la tu ñoo du regal man jaa ku xiiw de ti may sañoo nii rek ko ju xiiw de fama ana lan nag a tadbiru mooy pexe fii maa ci lu ne yum sikku dana mu jàpp ar ramaqa ndesi di bakkan wuyu fi te dana fay al furaqa lakkati xiiw koo man daa am la suuree mm. xam loo dëgg ba jàll mm. am lu ci sa xalaat mm. ak maanaam tadbir mooy pexe ci maa ci loo xam ne yom si ko dana mu jàpp arama xade si bakkan ko yëfi wute dana fay alfura xaye lakkan xaarit ne ko xultu ma ne ko alaf mbir mi daal ilay ka jëm na ci yow wasimaamu nafsu gi daal bi yaday ka nekk na ci sa loxo léegi daal noo waxee rek mm. d'accord mm. jox lépp mm. soo ko defe ku jarul lépp dan bu dee ci doo ko a wax de wala nga jël sa lépp da ko jox kenn da ko jox da jox ne na fekk mu xeew sa lépp mu jar jox lépp jox lépp wala jarul góob lépp abu saydin ne ma ara dama gisoon daal mooy dama xalaatoon an tarhana nga tayle say fakka sa jaabi ji tusbiha ngir na nga reggal jaw fakka mm. sa biir wa say fakka sa kan dama xalaatoon ñi tayle sa jaabi ji mm. suñ taylee sa jaabi ji mm. ah man ci am luñ lekk suba yow dang ci lekk te sa kan laa nga gën a lekk néeg bu baax a baax ñoo mm. <laughs> ñëw boo ko dajee ci àll bi xaaral mm. dugg mm. kan ci war doon gàddu njaatigee gàddu xam nga la mu ne ko fan naa wil nii jot li ma jaati ji waaxim te nga sax fi léegi da may jox ji te néeg ma fi ma dem toppatoo jaateel yaa xaliba ngir naa jàllarbeeku ilayka jëm ci yow bi maa ci lu xam ne sa saqimu da nga ko lekk dama bëggoon nga jox ma te ma fi suba man su ma demee la mën a lekk hmm. xaaris ne fa ahsantu ma rafetal bihi ci am ahsan na njort ji ko ma lu baax lool ma ñu ma njort lu rafet hmm. wa qallatuhu ma rangal ko asay ko jaasi ji waral na ak kayle mu ne kon jàpp jàngo hmm. fama labisa saxut an rakiba lu muy mu war anaqata gëlëmam warafata mu fëgg asidaqa dëggal ga hmm. wa sadaqata xaritoom hmm. léegi moom booba la wul hmm. moom ko yor yaa dina la wax dem fa makkastu ma sax ma liyan ab diir ataraqabu oo de ko fugu ma tooy léeg-léeg ma tooy ma léeg mu ñëw léeg mu ñëw yàgg lool su ma naxaatu topp ma buur ataraqabu oo de ko topp ba ne ba yàgg may naa seeti ba xam mu ma hmm. nekk di ji ma xëñ tu waaye fa kuntu dama kaman di ni koo xam ne day a sànkoon na mu allah bana soow hmm. te say bi ci cooroon hmm. waaye mel ni daal dama romb bañukaay ba moom waxee indi jaasi su ma ko joxoon ñu ànd kon du rawee ko ah asay fa day yaati laban mooy mbir moo xam ne fa nga ko waroon a topp doyee daf ko romb ba mën a doon sotti nag mm. nga ne man maa ngi ko toppatoo lii lu lay jëriñ ñu mm. ne ki ko njëkk a wax ak góor la mu mm. ko waxoon na si ndaw ko doon denc ci ndaw si fekk moom jarga la bëri nag trop waaye nag buñ seetee ak bu ne mu ngi ci jur gi ndaw si nag xool ni melokaanu góor gi meleen di jëm ni jëm góor gi meleen naan lu ko taxul jur yeneen góor gi daal civilisé wu dara demee ci baraas daal loolu ko daal ne leen tàggale ah ñu tàggale leen tàggaloo bi ci cooroon la woon bu ko defee ko am bu mu seet daal di ko takk mu wax ne man ne wax ko mu ne mbëggee waaye nag mu la góor ga amoon nag ni ma ab diin na xanaa ndaw ni nii mu soxla yéen a ji góor ak jaay gam tàggaloo di ko ñaan soxla góor gi ne ko woon na ko du ma la may ne ko ca coorom nga sàmmoon soxna ne ngay xaw ma dodo ko jële su ko defee mbir nag su fekkee fa mu ko waroon a taxaw ma ma la njëriñ fa mu ko waroon dama dem ba xam ne beneen loola faat na nga da ci wane bëgg-bëgg ci li ñuy wax asay fa day yaatin laban man na loolu ma dal ko kontu dama ne kamante mel ne koo xam ne day yaan sànk na mu allah bana soo fi sëy fi ci man walam alqahu dajewuma ak abu seydin wala seefa gisuma sama jaay wax na ko benn nga